mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu gannaaw bi ñu santaatee yàlla sunu borom subhanahu wa taala bu baax a baax di waxaat alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu sunu borom subhanahu wa taala dimbalee ñu fekk waat guddi gi àjjuma tey jii tatal ko ñu ngi ciy santaat sunu borom subhanahu wa bu baax a baax ndax ni ma koy faral di fàttalee saa su ne maanaam alxamis bële jàll muy guddi gi àjjuma ndax wajaala layla wan naxaara guddi gi mooy jiitu li nga xam ne mooy suba gi kon guddi gi àjjuma la ñu toll ci jamono jii maanaam guddi gi àjjuma gën a jàll nag bari nañu baree bari ñu fi fekkoon ay góor ay jigéen ay mag aki ndaw te maanaam yàlla sunu borom dogal tey jii fekku leen fii kon xam noonu loolu mat naa sant yàlla sunu borom ci mante la yow mi ko fekkee ba ca toppaat mooy maanaam bari na ñoo xam ne fekke woon nañ bële jàll maanaam fekkee bu tey jii waa nag taluñu ko te kon loolu mat naa sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala baax a baax ci fekkee giñ ko fekkee ba noppi tal ko kon alhamdulilahi rabil alamin seen mbokk la rek seen xarit Mass Gueye Touba bu ndaw kër Serigne Abdourahmane Mbacke moom Serigne Falilou seen émission bi nga xam ne saa su ñu ngi koy def ci guddi guddik euh, li nga xam ne mooy ajjuma maanaam ci rajo Baol Média 88 euh, point 5 su ko defee téléphone bi mi ngi doon 88 628 19 ak 05 ak 88 628 81 08 su ko defee saa su ne maanaam euh, li ñu ngi koy faral di waxee rek. maanaam dolli ko ak dolli li ñu ci soxla rek mooy maanaam képp koo xam ne suñu borom dogal na daa am looy leerlu rek boo composé ci numéro yi man koo leerloo lu jëm ci laaj ak tontoo su fekkee dafa am leneen looy leeralit ba tey nga dugg leeral ko kon leerlu ak leeral la sàkku ci mboolem ñi nga xam ne ñoo diglu seen rajo Baol Média di ñaanal bu baax a baax nag sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi doole yàgg lool Mbacké te ma ànd ak wér te di ko ñaanal mboolem kilifa yi diine yi waaye di ko ñaanal mboolem kilifa yi aada yi te di ko ñaanal mboolem talibe yi yàlla mi borom jàmm yàlla na nu boole jàmmal teg nu ci yoonu ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim xayri maxlubi alayka alayhim wala daalin mën nu ba ñoo boole ci ñi nga xam ne dañoo sànku ak ñi nga xam ne dañoo réer kon nag sunu borom subhanahu wa taala noo ngi ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala defal nuy xéwal di ñaanal bu baax a baax nag ki nga xam ne mooy jëwri nii rajo bi mooy Serigne Muudu Jóob caat mi nga xam ne sunu borom dogal na dara ñuru ko lu lu baax ak it maanaam liggéey ci askan wi mooy liggéeyal tayam liggéeyal ëllëg ngir rajo bi ñëpp mën cee jariñu kon muy góor muy jigéen muy mag mu di daw foo mën a bokk rek ak koo mën a doon boo ñëwee ci rajo Baol Média maanaam la nga xam ne dégg maam mooy sa yitte ak la nga xam ne dégg nga maam mooy li nga soxlawoo mën naa saafaroo nu mu gën a rafete gën naa gaawee ndax ubbi nañ porte yi ñëpp rek ndeysaan kon tëjaluñ ko kenn di santaat bu baax a baax nag ki nga xam ne mooy sëriñ Seydina Diop Bichri mi nga xam ne sàkk euh, guddi gaa ji ma ñooy am li nga xam ne mooy jataay bi te yàlla suñu borom dogal tey jii rek ñoo am ak cant fële ca li nga xam ne mooy guy mbind moo waral tey teewul ci laaj ak tontu bi ndeysaan waa di siyaar baax baax suñu technicien bi nga xam ne euh, soxna Ndumbé Diop Euh, nu koy siyaar baax a baax baax di ko gërëm ci euh, maanaam wàllu technique bi ndax comme ni ñu koy faral di waxee su ngeen mënee toog ba diglu li nga xam ne mooy rajo bi digluwul ko digluwul leer la ko waral mooy technicien ba di santaar bu baax a baax a baax nag mboolem ñuy diglu rajo Baol Média kon soxna May euh, noo ngi lay siyaar baax a baax a baax baax euh, nekk fële ca soxna May Diouf nekk fële ca maanaam euh, Baye Fall ga du siyaar ki nga xam ne di nga maam mooy soxna Dior Gueye ak soxna Ami Niang ñoo ngi leen di baax a ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi diglu seen rajo Baol Média ku mel ni Serigne Falilou nekk fële ca Ndidik Serigne Falilou ak mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel rajo bi ak kit ki nga xam ne mooy bàyyi Cheikh Gueye Ridial noonu lay siyaar baax di siyaar mboolem kuy kër këri ci rajo Baol Média kon xam naa tey jii rek li ñu fas yéene ànd ak yéen mooy comme ni ñu koy faral di waxee saa su maanaam seen jataayu diine la jataayu diine bi nag mu ngi jëm ci laaj ak tontu képp koo xam ne suñu borom dogal na am na loo xam ne da koo bëgg a leerlu ci diineem bu ko leerlu suñu kéemtalaay kàttan lañu ca xam ñu daal di ko cay leeralal ndax xam nga aada dafa am diine yi dafa am. su ko defee nag aada moo jiitu diine ndax aada moo fi njëkk diine ndax diine lislaam moom bi yonente bi sallallahu alayhi wootee maanaam la ñuy appliqué li nga xam ne digga moom ci la diine attewu am na ci yu bari yoo xam ne nag diine daana ko def maanaam bi lislaam dikkee ko caa bàyyi am ci lu bari loo xam ne euh, aada daana ko def waaye bi lislaam dikkee da koo dindi muy yu baree bare bari bari yoo xam ne ndax bu njëkk nit daana def bu baayam faatoo mboolem soxna su baayam yoroon maanaam mu yor leen xam nga loolu aada la woon ju bon joo xam ne du diine ndax xam nga takk sa soxna su baay maanaam am na ci ñoo xam ne sax daanañ dem ba soxna yooyee ñu amaata moom doom te koo xam ne baaye ko yoroon moom day daal di araam bi nga xam ne lislaam ñëw na moom dafa daal di araamal euh, ki nga ne baay da koo massa yor kon nag euh, am ci yoo xam ne nag diine da koy rafetloo aada da koy ñaawloo am ci loo xam ne aada da koy rafetlu waaye diine da koy eh, ñaawloo su ko defee nag soo wootee laajte léeg-léeg eh, su ko defee danañ la leeral ba xam loolu aada la wala diine la ndax it fi ne bari na lu bare bare bare ba xam nga ci tey tey ci aada day wax ne gone gu mën doon dañ koy ñaanal naan ko yàlla na nga dund ba yóbbu sa ndey sa baay màkka waaye doo gis daanaka sax koy ñaan ku naan yàlla na nga dund ba dem màkka xam nga loolu euh, aada moom moo ko rafetloo mooy wax naan gone gi yàlla na nga dund dunda dund daal ba yóbbu sa ak sa baay màkka loolu rëy na rafet na waa nag lekko ko matoon na ñaanam mooy yàlla na nga dund ba dem màkka ba yóbbu sa ak sa baay waaw kay ndax it màkka bu fekkee na am nga capital yow yaa war a dem ba noppi waa fi ne bu dee ci diine moom lim rafetlu mooy ki ko man ba noppi def ko muy daal gone gi baayam mënu ko yaayam mënu ko waa nag moom man nag ko mu daal di dem aji ji loolu la diine li rafetlu lislaam moom loolu la diglee yow mi ko man yow la war waaye warul sa ndey warul sa bàyyi ndax la ko waral mooy buñ ko mënul wàcc na leen kon yow mi ko man nag boo ko defee ba noppi nag ku la neex yóbbu waaye nag di yóbboo ko nit màkk te yow demagoo loolu aada moo koy rafetlu waaye diine moom rafetlu ko xam nga aada moom li mu rafetlu mooy doom joo xam ne daa yóbbu waajuram màkk muy ndayam ak baayam te moom demul màkka loolu moom aada rafetlu na ko da koy sant di ko gërëm naan ko yow daal amoo moroom ndax yóbbu nga sa baay yóbbu sa yaay te yow demagoo kon lislaam moom xas na la aada nag tàgg na la su ko defee ba tey it li nga xam ne diine moom rafetlu na ko te aada ñaaw ñaawlu ko mu di tey jii su fekkoon nit ki dafa takk soxna wàcc ko ab xaritam takk ko loolu moom diine rafetlu na ko nee na amul benn jafe-jafe ndax ku wàcc ku ne ku nekk tem daggan ci moom am na sañ-sañu tàkk ko moo xam sab xarit la moo xam sab noon la ku nekk am na sañ-sañu takk waa bu ko sab xarit takkee nga génne ci moom sam noon takk ko sax mooy lay gënal yow waaye rek euh, bu dee ci diine daal moom xarit bi ak bi la yamalee bu dee ci aadaa nag moom xarit bi day wax bul takk ba tey it am na loo xam ne aada da koy rafetlu waaye diine la ko ñaawlu mu di euh, tey ji da gis ñu bare bare bare dañu naan bu mag faatoo rakkam mën naa takk jabaram waa nag bu fekkee rakka faatoo magam mënta takk jabaram déedéet loolu aadala waaye du diine diine moom mag ji ak rakk ji ñoo yem ab bu fekkee rakka faatoo mag am na sañ-sañu bu soxna sa bëggee te mag ja bëgg ko mu takk ko ci kaw idda ja jeex mooy mu muuru ñeenti weer fukki fan bu muuree daal képp koo xam ne dégg nga maam araamu la rek am nga sañ-sañu takk ko moo xam mag yi ki faatu la moo xam rakki ki faatu la ñoom ñaar ñëpp am sañ-sañ takkante su ko defee araam na ci góor goo xam ne danga boole ñaari jigéen ñoo xam ne ñoo bokk ndey wala ñaari jigéen ñoo xam ne ñoo bokk baay ñaar ñoo xam ne daal ñoom ñaar araamante wun doo leen boole muy ñaar ñoo xam ne ñoo bokk dégg nga maam li nga xam ne mooy baay wala ñoo bokk ndey nga xam ne daal tey jii ba fekkoon ci jëkkër ak jabar la ñooñu duñ mën a takkante doo leen mën a boole. nit nag am na euh, bu dee ci euh, separation nag mu di nit am na sañ-sañ euh, yor jigéen dema dema dem ba jigéen ja tàqalikook moom muy mu tas bu iddaam jeexee bu ko neexee takk rakkam idday kun fase nag. mi ngi toll ci sara salaasatu xuroo in muy ñetti eh, salaasu in muy ñetti eh, reegal moo tax eh, bu fekkee ne soxna si dañ koo fase mu toog juróom-benn fan rek daal di gis reegal bu setee dañuy wax benn bu demee ba gisaat beneen reegal ñu ne ñaar bu gisaatee reegal bu setee nag ñetteel boobu moom iddaam jeex na képp koo xam ne araamu rek bu la neexee am nga sañ-sañu labat ko bu bëggee nga takk ko su ko dee su boobaa nag bu fekkee ne nag eh, idda joo xam ne nag ko faatu la moom mu ngi doon ñeenti weer ak fukki fan waa ci kawit ki faatu bàyyi fi soxna soo xam ne dafa ëmb bu dee jigéen ji moom dafa ëmb bii nga xam ne jëkkëram eh, dafa faatu eh, su su fekkee ne sax dafa faatu ay moom jëkkër ji ci alxemes ajjuma bu ndaw si amee doom day muri ndax it day kuy muuru moom mi ngi aju ci rek ëmb ba saa yu imbee rek it daja jeex na waa nag su fekkee day door a ëmb nag su boobaa li fekk amul doom du muri am na ñu mën a muurandool nag muuroondoo ak ñoom ñoo ñëpp muri te du muri waa mën naa muri te duñ muri fii ñuy muree te du muri nag mooy moom ci jëmi boppam soxna yooyee moom ëmb ba amu ca doom te ñee matal na ñeenti weer ak fukki fan soo boobaa ñoom dañuy muri bàyyi ko moom mu continuer ba keroog muy am doom su fekkee ne nag danoo dox tuuti rek mu daal di am doom da leen bàyyi ca muuraay ga ñoom ñuy muuru moom mu muri kon daal ëmb bi moo koy galgal mooy soxna soo su nga xam ne borom këram dafa faatu fekk mu ëmb jigéen ji nga xam ne nag buñ ko fasee moom du jàpp idda kooku mooy jigéen ji nga jëkkër ja koo takk te jotuñoo wéet ñoom ñaar mooy daal ñoom ñaar sëyunu moog jëkkër ji ak jabar ji jotuñoo sëy su boobaa buñ ko fasee dimanche alterné bu ko neexee bu gisee jeneen jëkkër sëy daal kon idda bu fekkee it ba tey nit ki jëkkëram dafa faatu mu yéex koo yëg comme ni ko gaa yi defee léegi barsa wala barsàq a ah léegi nag am ku ca faatu te yoroon soxnaa su fekkee yëg yëgle na ne moom kat euh, moom mi fi déparé woon kat faatu na ndeke dañuy xool gëstu ca ñooñee ne faatu na laaj leen kañ la su fekkee nee nañ ah booba ak léegi de mat na ñaari weer kon soxna si day daal di muuru ñaari weer ak fukki fan kon ñaar ya paase moom du ko fay su fekkee nee nañ ko boobaa ak léegi ñetti weer lay tollool boobaa kon day muuru weer ak fukki fan suñ ko ne booba ak léegi de ëpp na juróomi weer wala mat na juróomi weer du muuru déedéet idda bu xasee jeex kenn du ko fay kon loolu it mat nay gëstu te di ko leeral ndax diine moom bawul dara dara dara dara dara ñaareel ba mooy e diine moom am na kersa waaye nag amul kersa nit ñu bare bari daanañ faral di wax naa diine amul kersa fekk ñoom ñoo xamul waxin wi mooy diine am na kersa waa nag amul kersawu kersaw mooy lépp loo bëgg a laaj rek laajal loola ndax diine bawul dara dara dara dara dara dara ba tey it euh, comme ni ko nit ñi di defee lu bare bari mooy bu jigéen ñaanee baat ñu daat ne du yóbbu bagaas ya waa bu ñaanul baat nga xam ne jëkkër ji rek moo jékki-jékki may ko baat mu yóbbu bagage ya loolu it ay aada yoo xam ne du diine euh, maanaam fi nga xam ne du yóbbu dara mooy boo xamee ne soxna si moom jëkkëram yor na ko yorin wu rafet mooy jëkkër ji daal dara manqué wu digganteem ak soxna si waa soxna si daal moo dem ba mu yàgg mu gis leneen loo xam ne ca la bëgg a dem nga ne daal daa doyal waaye wax dëgg yàlla jàmbatu dara nga ne daal góor gi wutal na ko dëkkuwaay lekkam ak naanam akuk solam dëkkoom dara mànkiwul moom daal moo jékki-jékki rek mel na dafa am leneen lu mu gis wala daal daa doyal su boobaa nag góor gi lay neex moo xool mboolem lu mu ko defaloon te mu tax mu téye ko su ko defee ba noppi it bu ko neexee mu laaj ko la nga xam ne mooy can ga la nga xam ne moom la defoon ci moom mooy wañ wan xaalis yëkkati ko jox ko su ko dee su boobaa nag la wa la jublu ca loolu mooy ndaw si récule waaye su fekkee nag góor gi la dara matut nag bu boobaa nga ne daal ay mankaam dafa bari lu soxna si laaj mën a yuruma ko lu mu wax mën a ko defuma ko su boobaa nag nga xam ne moom daa toqi daa tàyyi su boobaa du fay dara te it du fa ba dara loo xam ne moo tax ñu moo taxal ñu jënd ko bokkut ak nag jigéen ñi xam ne dañuy siy si fekk fa ab teleeg lalak nangam ak nangam ak nangam ngay dem bëgg a dajji lépp yóbbaale déedéet li tax liñ li nga xam ne yaa taxoon nuwut ko nga ne daal moo la fi fekk waaye yow fekkoo ko fa loola rek nga am sañ-sañu yóbbu ko waaye góor wax nañu ne moom bu dee fase bu dee fase moom góor gi na rafet jigéen ji na rafet mooy daal tàggin na rafet ñu xam ne rek ñaar ñu yàlla boole la woon te jeexal ko ndax fa imsaakun bi ma ma'ruufin aw tasrun bii saan téye ci njëkk mbaa ko ci njekk lépp a war a rafet ndax man naa dagg te dellu siwaat mooy bariwaa na ko demoon dellu si te bu fekkee daa ñaawoon ba muy dem rek dellu si ga day doy waar maanaam kerse ga day ëpp te kenn ku ci na ci ñoom ñaar boo gisee sunu borom ne id bu fekkee day jàpp idda muy ñeenti weer yeeg fukki fan moom soxna si wërta génn kër ga daa war a toog ca kër ga du togg du yàq du raxas ay dab waa daal dana sangu dana solu dana lekk dana naan dana tëdd di nelaw ca kër ga waa nag du baraj baraj yi tukkee dem fu ne déedéet day toog ca kër ga xaar iddaam jeex su toogee nag lu mat ñetti weer ñeenti weer ba toogee lu mat ñaari weer bay yuutu ñettee nag diggante boobu fépp fu mu fi moom soxna si na jëkkër ji kat neexul ba neexul waa nangam ak nangam su boobaa bu ko jëkkër ji fekk see ca la ma waxoon rek léegi sëy ba dellu na fa mu woon kenn du ko fasaat bu fekkee góor gi it moo toog a toog ba mu yàgg mu xam ne nag ca dëgg dëgg dëgg dëgg daal lii daal yéeme na te rëy na mu dellu gannaaw ca la mu defoon wala ca la mu waxoon su boobaa li fekk ñetti magu magul matul ñetti xuroo in muy ñetti reegal yoo xam ne day dañ koy calcul ñetti weer ñaare xamal ne bu boobaa it kenn du ko fasaat. waa su fekkee ne nag dafa ne tekk tekkaaral moom góor gi mbaa jigéen ji ba ñetti weer yi mat sëkk muy mu gis ñetti reegal moo xam dafa dem seen kër moo xam dafa ne ci kër waa ji buñ bëggee juboo dañ koy fasaat mooy idda bu xësee jeex dañ koy euh, takkaat moo xam ca jàkka ja nag moo xam ca kër ga la moom daal bu ay kilifa toogee rek delluwaat say ba fam ne woon na daal diw mayaat nañ ko diw doom yi diw ak diw ci farata seer ak sunu ci ndigalal ay kilifaam rek mu dellu fam ne bu fekkee ne nag jigéen la joo xam ne dañ koo fase tombeek nag mu ëmb kooku iddaam amul ab ab kooku ëm euh, idda ja ma nga aju ca ëmb ba jigéen bu fekkee dañ koo fase woon tey jii mu ëmb bu toogee ñaari fan rek bu amee doom idda ja jeex na bu bëggee geneen góor bu ko dexee takk ko bu fekkee jëkkër jaa ko bëggaat nag dem ngéntee ba noppi da koy takkaat barawaana nag ko fase jigéen tombeek mu ëmb mu dem seen kër am doom nga ngénte indi déedéet boo ngéntee da ngaa war a fasaat ñu bare bari nag erreur lañuy def ci loolu saa yoo ko ngéntee rek nañ ko takkaat dañ koy fasaat ndax iddaje moom jeex na doonatul sa jabar waaw ñu bari bari dañuy ngéntee ngoon jot ñu yàpp ci oto indiwaat ci kër ga wala ñu ne am na doom naa ko sama kër lu ngeen nuru lu juboo juboo foog dañuy fasaat sëy bi ndax idda ji moom jeex na te idda bu jeexee mu buum ko dagg ñooy dañ koy fasaat loolu nag ñu bare bare bare ñu ngi ciy def ay euh, erreur yu bare bare bare bare bare kon nag loolu ci seen rajo Baol Média ci leen leen koy faral di leerale mu doon loo xam ne képp ku ci am euh, lu la ci desee leer rek boo duggee ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 incha allah dees na la ci leeralal bu fekkee da ngay leerlu. boo fekkee da ngay leerali dees na la teewlu ba xam fi ngay waxee fekkee ne romb na fi nu wax nu mën caa sukkandiku bu baax a baax incha allah ndax doomu aadama laabire rek lanu nu man muy àddiinu nasiya muy diine laabirante la su ko defee ñu baree baree bare it comme euh, niñ ko waxee woon ca jamono yële jàll muy euh, alxamis bële bari nañu baree bare ñoo xam ne tey jii dañuy doon góor a ah, bañ doonee waxambaane xay na seenu desee ragal yàlla wala seytaane man leen ba tax ñu trompewu wu nag mooy séq ak jigéen joo xam ne takkuñ ko ba am ak moom doom a ah, léegi nag doom ji ne fi moo xam booba am nga soxna moo xam amagoo soxna su fekkee booba amoon na soxna nag boo fekkoon ci àtteb lislaam la moom góor ga yoon da koo rayloo mooy dóor ba mu dee bu fekkee jigéen ja mas naa am jëkkër it moom yoon da koo rayloo dóor ba mu dee su fekkee jigéen ji mësta am jëkkër góor gi mës woon a am jabar bu waa ku nekk yoon da ko dóoroon téeméeri yar waa comme dóoruñ leen téeméeri yar reyuñ leen reyu géttan nag waaja dem ba takk soxna nag am ak moom ak njaboot àdduna di dox di dox di dox ba mu yàgg góor googee wàcceb liggéey te doom ji moom doom jooju xam na ne mooy kii mooy baayam baayam it xam na ne doomam la ñuy nemm compté bu baax a baax léeg mu fay ñëw xëy na njaboot gi moom mën naa am ñu xam mën naa am xamunu wala bu fekkee ne am na doom mag it yoo xam ne ñoo mag xale bi ndax am na am na góor ñoo xam ne dañuy takk soxna ba noppi amit njaboot lu toll ñetti doom baa ñeenti doom ba noppi dem feneen torom fe fa jigéen muy am fa jeneen doom nga ne jabar yeeg bokk yeeg doom yi ñëpp a yëg na seen baay def na lii doonte mënuñ ca dara wala xamuñ ca dara it buñ màggee ba xam ne kii seen rakk la mu nekk fi ak ñoom nekkul ca kër ga ndax ma nga ca yaay ja wala ca maam ja ndax mayun ko woon yaay ja léegi kon ay bokkam ak bokk ak yaayam ñoo yor xale bi ndax lislaam sax dafa jippi guur gi ba xam ne danaan ko yow ne liir bi sant sax waru ni nga sant sax liir waru koo sant mooy doom jooju góor googu ni mu sant liir ba waru koo sant liir bi ni war a sant mooy ni yaay ja sant nga liir bi yaay ja lañ ko féetaleel ndax ni yaay ji sant lay sant yaay ji lay doonanteel ak ki jur yaayam muy maamam ak yooyu waaye du doonanteeg góor gële daraam du du góor ga waaye nag su demee ba nga xam ne dégg ma maam kooka wàcc na liggéey nag léeg-léeg gaa ci wàllu miraas yi da nga ci gis ah, miraas yu yéeme ndeysaan ndax góor goo xam ne dund na lu yàgg ndax ay jamonoom xëy na bi mu doonee ndaw topp na ba kanam mbaa seytaane man ko ba loolu daal ko waaye mujj na nag ak mujjam bi mu dugg ci ñeent fukki at ak yooyu doon ko baax doon ko sell tuub ndeysaan di dem ca jàkka yaag dem ci gaa yu baax yeeg ndaje yu baax yeeg yëpp di ca dem ndeysaan ba ñëpp jàpp ne wàllu yu kamaal la ndekete mas naa def lu mel noonu bis ñëw rek ñuy miraas ñu sulli loolu daan na gone gi diw sàngam seen bàyyi ko jur waaye nag juru ko woon ci yoon kon du doon nga gis que ka ca gën a ponkale léeg-léega jug di xaaju naan du fi doon ne léegi coobale nag coobay nag kër ga tasaaroo mbooloo mi ku nekk ña xamoon xam ña xamut woon it xam mu gën a siiw te du tee bu demee ci ay tribunal ak yu ni mel day day doon ndax ñoom comme góor gi mooy baayam rek ñoom seen ting yónniwu ci loolu bu dee ci nag moo waxoon ne euh, comme doom la ci moom waa nag du doom joo xam ne dañ ko maanaam marqué ñàkk marke marqué gi nag mi ngi mel ne tey jii euh, boo duggee ci terrain bi di football boo demee ba ci euh, défense bi fi muy nekkee am na bal yoo xam ne boo ko dugalee dañuy wax orso orso boobu nag duggee nañu comme ni bal yi ci des di demee góol bi jàpp ko jàll na waa li muy li koy ñàkk ñàkk jàpp duñ ko kontewaale kon biit noonu la demee donte ab ëmb la waa kontewaale wuñ ko kon nag la daal bu fekkee yu mel noonu am na miraaskat yi war nañu am ak dal tuuti mooy xool ni comme ñi kat fukk lañ muy juróomi jigéen ak juróomi góor mooy buñ ci boolee waaj yi ak juróomi góor juróomi jigéen lay doon léegi jigéen war naa am téeméeri junni góor war naa am million ci misaal léegi la gën rek mooy ñoom buñ waxtaanee ci seen biir fexe ba gisante ku nekk ci ñoom xam nga li nga war a am mooy góor ñi ku nekk war ngaa am million jigéen ñi ku nekk war nga am 500000 ñu ne danoo bëggoon comme lii moom sunu baay la daloon am na ñu xam am na ñu xamul lay tax ñëpp xam daal nañ ko moytu. ndax dee na ba noppi nu di ko ñaanal. ndax moo gën bàkkaari topp ci gannaawam ak jippi yeeg bett na ma yeeg xaw moo ko woon ak yu ni mel kon li gën rek mooy ku nekk ci ñun na am loo coppati maanaam kii coppati tey jii ka ca coppati joxe teg fee. kii coppatee ñu def ko tegale ko noonu mi mel te ji bu góor joxe woon tey fukki junni góor ñëpp ku nekk daajale fukki junni joxe jigéen ñi ku nekk jël juróomi junni joxe mu leer na lii ñoom ñoo ko moom ba noppi jëkkati ci ab pàcc nag dajale ko jox ko kooku nga xam ne suutura lay doon soo xam ne moom du xam sax moom mi nga xam ne yàgg naa kër kër yi tey ndamoo ay magam ak rakkam su boobaa dara du ñaaw te rafet na te jël ngeen séeri ciir ba noppi kon xaalis beeg miraas mi jërul weer seen baay jërul weer seen bàyyi di dem tribunal ak yéeg ak wàcceek ak yu ni mel yooyu amul solo ndax it mboolem ku ko def it mën na ne wax ne la gàcc baayam baa gàcc ak baayam rek la cay euh, andi ndax bu fekkoon ku nekk war nga am 4 millions tey jii it jigéen ñi war a am ku nekk 2 millions it ku nekk jigéen yëkkati 200000 joxe góor yëkkati 300000 joxe bu ñu ko dajalee rek faaw dana mat million millions wala dara nu jox ko kooku ndeysaan. ne ko lii kat mooy sa wàll sa wàll la ndaxit it miraas sax maye nañ ña nga xam ne ñoo fekkee miraas ma rek tey jii toogoon ca kër ga di togg ak yàq wala ñu ne ca tàngalam café maag yu ni mel yoon la buñ miraasee ba noppi ba jox ku nekk ab ñu coppati dara jox ñooña mosal leen ca ngaa da tey jii boolem kon jox dara rek nga yëkkati sa ñetti junni ki yëkkati ñaari junni ki yëkkati juróomi junni ñu daajale ko séddale ko ñee te xam na nag wiraasatul yi siin kay kay donn way doon yi mooy yàlla sunu borom ndax lii ñu la sédd tey jii boo léegi dañ koy séddalewaat rek muy doon muy sédd lu di dem kon yenn yi daal jërul yenn ñaawaay yi waaw ndax it euh, comme noonu ñu ko waxee rek bari na ñu xamut woon te danañ ca xamee te dara waral ko lu xaalis mooy maamoom moom léegi moomuma lii bu dee ci àll bi it àll bi miraas yu bare bare bare teguwul ci aw yoon ndax daal ñoom jigéen ñi boolewul leen ci tool yi te mbooleem lu mu bàyyi la suñu borom wax mboolem loo xam ne rek bàyyi na ko mooy waajur wi bàyyi na ko wala soxna si bàyyi na ko wala jëkkër ji bàyyi na ko wala doom ji bàyyi na ko rek maa taraka lépp lu mu bàyyi rekk xamal ne loola dañ koo war a miraas moo xam setala la moo xam sujaada la moo xam kurus la moo xam kol la moo xam lu mën a doon te moo mën ko su ko defee nag bokk na ci baykat yu baree baree bare li tax duñ ko def mooy nu wax ne jigéen diw sàngam ma ngay sëy ca dëkk taax ya mais lim fay sëy sëy du tee daa war a teew ñu ne ko lii lépp moo doon doonoon sunu alali bàyyi bàyyi na fi nangam ci xaalis bàyyi na fi nangam ci ay bagaas bàyyi fi bàyyi na fi nangam ci ay tool ñu ñu xool bagaas yi niñ koy defee bu góor amee ñaar jigéen am benn bu dee xaalise bu jigéen amee 500000 góor am 1 million bu dee toolee it tool ya boo fekkee tey ji ñetti kilomètre la bu góor jëlee ñaari kilomètres yi jigéen jee war moom 1 kilomètre bi bo bu ko leeree ne am na ci tool yi ba noppi nag bu ko neexee may ko càmmiñam bu ko neexee may ko baayam bu ndaw bu ko neexee may ko jëkkëram bu ko neexee di ko luwee waaye nag am na fa dara ni góor ñi amee cër ca tool ya noonu la ci jigéen amee cër moo tax it mat nay moytandi ko bu baax a baax a baax ndax sunu borom sunu borom bi subhaanahu wa li tax miraas mata moytu mooy defluwu ko ab saxaaba defluwu ko waaju baax defluwu ko ab yonente moo ko defal boppam daana képp koo xam ne nag defee ko ko nii ñu ko waxee danañ la dugal àjjana nga sax ca ba faw duutoo génn waaw nag waman yata xadda day du lay ah nuddi xorixu naaran képp koo xam ne nag jàdd nga ko defewoo ko niñ ko waxee day dees na la tàbbal sawara nga sax ca dàkk kon loolu moom lu ko fi jar amu fii ci wàllu yow mi nga xam ne yaa yow lañ teg ca kanam bu fekkee xamoo laajal mbaa nga bàyyeeg ñi xam waa ñu baree baree bare bëgg ko féetewoo di ko liggéey te xamoo ko xaalis ba nga cay fayeku néew ay cinquante mille ak mille boo ca naree tàbbi sawara di te dëgg-dëgg bu doon ay milliards jëru ko ndax sawara moom ni ko sunu borom subhanahu wa taala waxee lu mat a ragal la moo tax mu ne yaa ayyuhan naasu xoo anfusakum wa ahlikum naaran wa xooduha naasu wala xijaara yéen nit ñi ee eh, yéen way gëm yi na ngeen ragal sawara te fegal ko seenu njaboot xoo anfusakum wa ahlikum naaran ndax sawara woo ko wa xooduha tàkk-tàkki sawara naasu lay doon wala xijaaru ak i doj maanaam ay doj ak i nit ñooy mattam sawara maanaam euh, sawara ba li koy xam bu aw nit lay doon akki doj nga ne nit ñi nga xam ne ñooy dugg sawara yal nañ ci yàlla musal kulama nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan suñu borom nee na saa yoo xamee ne seen yaram wa ñor na dañ koy remplaçaat weneen yaram xam nga remplace nga ne maanaam amul dund amul dee maanaam diggante dund ak dee ci lay nekk loolu boo jàngee saa bisma rabbika di ko ci fekk su ma laa yemutu fiya wala yaxyaa mhm. moo tax suñu baroon ne bal tuusiruna xayaatu dunya wala aaxiratu xayrun wa abqaa li fi nekk daal mooy nit ñi daal dañoo jël dundug àdduna gënal ko ci alaaxira maanaam jël àdduna rek boo gisee barsaak barsaak yi nangam yu bare bare bare gone di ko def muy àdduna bi ñu bare moom lañuy yokk ci seeni xol bëgg ko bëggin woo xam ne oto yi rafet yi kër yi rafet yi nangam yi rafet yi soxna yi rafet yi yooyu daal moo leen dugg waa du ëllëg pour waajal ëllëg te xam na am na ko ko amee ni mu ko bëggee woon bàyyi ko fi maanaam defar kër ban ban alhamdulilahi rabbil alamin sànca ca des te borom duggul gisees na ko ba tàyyi gis ñu bari ñoo xam ne defar nañ ba niñ ko bëggee woon amee ko ni yàggunu fa ay weer rek mbaam at gis koo xam ne wut na oto ba am ko nam ko bëggee woon mu amee ko ni génn euh, mbëkk daal di yee gis nañ ko fi ba tàyyi kon nit ki li gën rek mooy foo toll del def lu baax di sant yàlla tey suuraale ëllëg di comme ni ko Serigne Saliou Mbacke waxee woon yàlla nu ko yàlla doolee fayal ne doomu aadama ñaari biir rekk la am biiru boppam ak biir bàmmeelam daane biiru boppam nag bu ko itteel itte mooy bul nekk di yittewoo sa biiru bopp ndax biiru bopp moom mboolem li ci war a dem yàlla dana ko ca def ndax wa maa dàbbatin fii fi lardi ila lay risquwa amul dara luy dukkat ci kaw suuf dukkat nag mooy lu yëngutu am yor yor bakkan di nooyi rek yàlla moo yor wërsëgam ila ala lay risqa te wa ya'lamu mustaqaraha wa mustawdaha kullun fii kitaabin mubiin yàlla moo xam ab saxuwaayam mooy fi mu war a jaar xam ab delluwaayam lépp a ngi ci téereb euh, alwi maxfuus fii kitaabin mubiin téere bu leer nga ne doomu aadama lu mu yàkkamti mun munte lekk lu dul wërsëgam ndax malaaka mi nga moo tudd malaakal mawtu malaakal mawtu yore na ñaari ndob may tànk te ji gouvernement bi nga xam ne gouvernement sunu borom bi subhanahu wa taala ak bi dafa jox malaaka malaakal mawtu ñaari programme programme bu njëkk bi nag mooy wërsëg fi ne wërsëg malaakal mawtu moom lañ ko féetalee ndax yàlla muy wërsëgalee malaakal mawtu di di séddale wërsëg yi moo tax kenn ku ci la xam ne li nga war a lekk ak li nga war a naan moo tax nit ki bu fekkee ne demam daa jot malaakal mawtu xool ne jeexal na maanaam kii daal ñetti wiiti ruy moo ko desee buñ ko solee ñeenti wiitit faaw benn ba day génnaat ñetti rek la koy rayee mooy day bàyyi ba mu egsi ci ñett rekk benn boobee ñu ca doolewoon muy ñeent day génnaat nu daal di koy tipp foofa su fekkee dafa manqué it faaw mu mat kon du ko du ëpp du yées laa yastaxiroona nu wala yastaxdimoon maanaam déegi moom amul yokk amul wàññ sun borom du la mere ba wàññi ko waaye du la gërëm ba yokk ko ndax nee na bàkkan bu ne dañ ko wutal ab àpp ak xeet woo ne ab àpp liñ leen wutal bu jotee am na ñuy deewandoo am na ñoo xam ne day ji dañuy rawante tuuti par tuuti ngoon ak suba ñii semaine par semaine ñii benn bis waa xeet wu ne am na ab àpp boo xam ne du ko paase malaakal matu nag su xoolee yooyu yëpp jeex lekk gi jeex naan gi jeex lekk ak nag bu ñu ko xasee wax rek boole nañ ci am-am muy xaalis moo tax léeg-léeg gis koo ne dañ ko wax naka dëkk bi mu naan noo ngi dem ak a ñëw ngir ñàkk sant yàlla wala naka dëkk bi mu naan ah gis nga ko rek wala naka dëkk bi mu ah, mi ngi màkkeeg mi ngi nàngam yooyu yëpp ngay wax noonu jëru ko la gën a rek yow nga wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla suñu borom ndax li la tee sant yàlla day nit ak ko na siiw am na koo xam ne bu mënoon a joxe 5 millions te mel ni nga mel joxe ko kon yow amoo 5 millions ba noppi mel ni nga mel alhamdulilah am na ñoo xam ne jumaa xamul nu jumaa mel dañ koy dégg rek am ñoo xam ne asamaan si dañ koy dégg waa xamul nu asamaan mel suuf si xamul nu mel bu nu yoree soxna xamul nu mel bu nu yoree jëkkër xamul nu mel bu nu amee doom xamul nu mel la ko waral mooy dañoo judduwaale silmaxa te boo leen joxee loxo ne ko nanga def mu ne la alhamdulilah. ana moog yow mi na jàkk nag di xool lépp ngay jàmbat te doomu aadama xéwal ko yàlla suñu borom defal bu toogoon di ko du ko man malaakal matu nag moo tax bu dem jotee moom day ñëw ne cëpp moo tax bu fekkee ne ni cëpp ànd gaa yi mu àndal gaa yi naan ko ay waay law laa axarte nii ilaa ajalin xaribin ay waay fa asadaqa wa akun mina saalihiin ay waay malaakal mawtu yow teegu maa dimbali lu teewoon nga xaar ba ca kanam law laa axarte nii ilaa ajalin xaribin àpp bu gàtt sax ca kanam tuuti rek nga xaar ma ba ca kanam tuuti rek du ko defee fa as sadaqa ma mën a saraxe sama alal ji def ci lu baax ndax su ko defee waa akun mi ne saalin ma mën a wokk ci gaa yu baax yi doolu ma dimbali loolu yow malaakal mawtu ndeysaan waa nit ñi moom duñ ko dégg waaw moom mi ngi wax ak loolu malaakal mawtu ndeysaan aji dem ci moo tax nit buy sukuraat du mën a yuuxu xam naa bu fekkoon nii dee danañ yuuxu léeg-léeg a hôpital boo xam ne riir ma foo ko takk da koy paase waaye du dégg kenn kuy faatu yuuxu saal bi nga entré ne feeg ñuy waaj a dem da ngay jékki rek di gis mun a tekk médecin yi ñëw yëngal na faatu na ñu daal di puus génne waaye yow mi nekk nag moom sësal ak moom lal sax doo xam ne faatu na ndeysaan soo tot la ko waral mooy cër yi kenn ku ne dangaa jot sa wàll maanaam làmmiñ mi nga xam ne moom lu ma sa am moom ngay dégg mbiram daa ñëw moo tax telu kenn boppam la tal du yuuxul kenn moo tax tekk lay def laa ilaha illallah daal bu amee sens man na kaa wax waaye du mën a yuuxu du mën a def dara mu jàkkaarloog malaaka yi wax nañu ne malaaka yi bu ñu egsee ba malaakal mawtu egsi am na malaaka yu may àndal yoo xam ne dañuy ñoddi roog yi ñoddi ba ci egsi ci wuum yi ñu bàyyi tuuti bu ndee ba ca kanam ñu dellu ñoddiwaat ba ci jumbox bi ñu bàyyi nag ciri tàggatoo loxoom ndeyjoor bi tàggu bu càmmoñ noppum ndeyjoor bi tàggu bu càmmoñ tànkum ndeyjoor tàggu bu càmmoñ bëtum ndeyjoor tàggu bu càmmoñ ñu daal di yeggalee bu dee waaju baax nag dañuy nocc ruuga nocci bu dee waaju bon nag dañ koy buddi kon buddi ak nocci bokkul am na ñoo xam ne seen sukuraat mën naa mat ñetti fan mbaa ñeenti fan ñu naa dara nelaw rek fekk moom nit ñee ko gis ci ay nelaw waa moom ma ngay gis la muy gis di yëg la muy yëg waa mënu ko wax ndax watafati saaxu bi saaxu ilaa rabbika yow muy seen man saax suñ borom rek la dëgmal soo dee malaakal mawtu nag bu fekkee waaju baax la bañ nocc ruuga dañ ko yóbbu xilliyin bu dee waaju bon la ban buddi ruuga dañ ko yóbbu jaar mu ca kàccoor ya su ko dee moo tax doomu adama juróom la alalam yaramam yaxam jëfam ruwam alal ji lu mu bari bari bari bari bari bari bari ñett rek nga ci am li nga ci lekk mu rees li nga ci sol mu ràpp ak li nga ci def ci yàlla tax ci yoonu yàlla ñett yi moom yaa ko moom waa li nga fi bàyyi nag yow ñi nga fi bàyyi rek ko moom lu mu bari bari li nga fi bàyyi ñi nga fi bàyyi rek ñooy ko moom gis nga loolu bu baax ndax li tax ñu ne la li nga lekk mu rees mooy li nga lekkagul soo fi bàyyi ko dañ koy séddale li nga sologul yiir yi nga sologul boo faatoo dañ koy séddale alal ji it noonu kon loo ci lekkut mu rees loo ci sulut mu ràpp loo ci defut yoonu yàlla moomoo ko li nga fi bàyyi moom ñi nga fi bàyyi rek ñooy ñi ko moom mooy miraaskat yi malaakal moo nag daal di jël fekk na doomu aadama bi bi mu nekk fii ci àdduna bi yàlla du ko booleek ñeenti malaaka fi na nun ñi kenn ku ci na ànd nga ak ñaa ñeenti malaaka menn malaaka mi moo nekk ci mbaggum day joor meneen malaaka mi moo nekk ci dégg maam mbagum càmmooñ mi muy kiraaman kaatibiin muy raqiib ak xatiib su ko defee yeneen ñaari malaaka yi nag menn mi nekk ci sa kanam menn mi nekk ci sa gannaaw li ko waral mooy sunu borom subhaanahu wa mooy yabal malaaka yooyu ngir ñu garde la boo gisee gaynde yi guddi gi dugg ci dëkk yi wala bukki yi wala fàttkat yi du dugg ci dëkk yi nit ñi malaaka yi leen aar moo tax ba tey ji boo laaloon ak basang di nelaw ci suuf si weñ ñi dañ lay romb rek biiw la jàll boo fekkee sangalee ñi léeg-léeg ñu màtt la waaye li lay romb jàll yi ëpp ak yu baree baree bare waaye soo xam ne dee dikk na nag ba nit ki na xuntum sedd gu dangay gis weñ yi léegi comme malaaka yeneen garde dem nañ we ñu dugg ci bakkan yi ak nopp yi melentaan sam ko aha nga xam ne mboolem lu dikk rek day yéeg ci kawam moo tax sax rapidement buñ ko gaawul yëkkati mu yàqu nga xam ne kon doomu adama du dara su ko defee nag soo xamee ne loolu jàll na yaram wi sax yee ko moom loo noos noos ëllëg dana ñëw sax yi noos ndax xam nga ne doomu aadama mooy noos ci xar yéeg ba yéeg nag yéeg giléem yi waa moomit sax yee koy noose moo tax suul ak sànni suurewun buñ sànnee tan yey lekk buñ suulee sax yi lekk waaye yaram wi moom du dem moo tax yaram wi sax yee ko moom yax yi nag suuf see ko moom yàlla suñu borom daal lim soxla mooy jëf ji ak roog bu jëf ja sellee ñu teral rooga bu jëf ja bonee ñu toroxal rooga kon daal yéen a ngi ci seen rajo Baol Média 88 point 5 628 19 mooy numéro bi 88 628 81 08 ba tey Euh, su ko defee Soxna Ndumbe Diop moo leen ci wàllu technique bi su ko defee képp koo fëgg rek ngir leerlu mbaa leeral des na la jàll ci seen jataay bi nga xam ne mooy jataayu diini sax guddi ga juma seen mbokk seen xarit Mass Gueye Touba Gare bu Daw kër moom Cheikh Mamadou Fadri di ko ànd ak yéen ngir leerlu ak leeral di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla nu boole jàmmal may nu gudd fan loolu gànd wér-gu-yaram mucc gànd mucc la di wax ne képp ku nelaw ku ne dangaa bëgg nelaw jamono ju ñu toll yeewu jot na ndax yeetewukaay yi bari nañ moo xam yenn rajo yi la ndax du rajo yëpp moo xam yenn télé yi la ndax du télé yëpp waaye groupe bi whatsapp yéeg mboolem yeetewukaay yi daal lépp lu waay bëgg xam bu ko neexee mën na koo xam waaye nag lépp lu mu bëgg a bu ko neexee mën na ko réere waa daal li am solo te am solo dëgg-dëgg mooy doomu aadama war naa xalaat bu baax a baax a baax a baax ci ak dundam ndax su fekkee da ngay dund góorgóorloo sa kemtulaay kàttan bi ngay ñëw dangay ngay jooy liir liir buy ñëw rek day jooy day jooy rekk waa bokkee moom comme soxna si mucc na rekk liir bi ñëw na soxna si mucc na ñoom ñëpp dañuy ree ay waay alhamdulilah ay waaye di mucc na alhamdulilah daa daa tolloon ab diggante toolub diggante nag mooy diggante dem ak ñëw bari na ñu bari ñoo xam ne dañoo tollub diggante far ca dem bari na ñoo xam ne dañoo tollub diggante ñëwaat mooy daal diggante la boo xam ne jéggi ko léeg-léeg nga jéggi léeg-léeg nga arrière su ko defee nag liir bi moom day jooy rekk waaye nag santagul nenn tuddagul nenn liir bi kon bi rek la sant liir bi moo tax buy ñëw balay jaar lu ci ëpp balay jaar sant bi jaar ba sant bi jaar ba nag mooy liir bi maternité baax maternité moom liir yee mooy seen wàccukaay mooy mooy fi nga xam ne fi leen ji cëppeelu ñoom mooy maternité ba yow nga sant bi di liir bi waa nga nekk ci àdduna bi di kër kër di kër kër yi ba bis ba dellu léegi comme xam na ni baayam sant léegi kon sant bi moom mi ngi tege waaye nag tur wi ñëwagul a tax mu ne si ko complété te ñooy ànd moo tax bu bis ba di see ñu sang ko wat ko laxas ko leewu ko teg ko ci kanam ka koy tudd mu noddu ca noppam nday joor ba léegi xam ca noppam càmmoñ ba tifli na bisimilah ñu tudd tur wi ndeysaan kon léegi mi ngi door am aw tur a ko sant léegi ku ñëwati léegi bu dee jigéen la turu jigéen nga koy wooyee bu dee góor la turu góor nga koy wooyee kon wi ak sant wi àggul yàggul àggul yàggul ndax nekku fi woon andaale woo ko moo tax boo nekkee ci àdduna bi di kër kër yi di kër kër yi di dem ak a ñëw di kur kur di dem ak a ñëw moo xam nga yàgg fi moo xam nga ñàkk fi yàgg rek boo nee tekk tuddaat na nga tuddoon santaat na nga santoon mooy lan niiw bi moo tax liir bi niiw bi dem gi moom bi ngay sant ñëw gi bi ngay sant bi nga ñu yaa ngi tudd liir bi booy tudd booy dellu tudd niiw bi moo tax ba tey comme liir bi fam mu wàccoon bala bala sant bi ngay ñëw yaa ngi jaar ci matar ni ta baax tudd na liir bi booy dellu yaa ngi tudd niiw bi jaar fan ca margo baax nga ne kon baax baax margo baax margo ba nag loo rëy rëy rëy liir bi lépp doole ndax liir bi lu gàtt gàtt dana wéqu dana kalkali waaye fële ca margo ba moom amul yëngu nga kon benn mbir la te bi muy ñëw ëndaalewul dara te buy demit du yóbbaale dara lu dul jëfam wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu hindallaahi sunu borom nee na day lépp lu ngeen jiital ci lu baax lépp lu ngeen jiital ci lu baax da ngeen ko fekk ci seen borom bi subhaanahu wa taala te loolu day la koy tax a am mooy yaay guur-guur sa kem lay kàttam sunu borom nag def na lu ne ndax jël na ab yonente tàbbal soxnaam sawara yonente ñaari yonente yoo xam ne seen seen seeni soxna sawara lañuy ñuy tàbbi waaye jël na ab yéefar bu guur di tàbbal soxnaam àjjana toroxal na doom teral baay toroxal baay teral doom sunu borom subhanahu wa taala ñaari yonente yi nga xam ñoom la toroxal seeni soxna mooy daraba law masalan li sina kafaro imra ata nooxin wa amra ata luutin kaanataa tata abdayni min ibaadina saalihayni fa xaanatahuma falam yuxniyaa xanxumaa min allaahi shay'an wa qiila adxulu naara ma daaxiliin kii nga xam ne dégg nga maam moo yonante yàlla nooxan ak lóot yonante yàlla lóot ñoom ñaar ñëpp seeni soxna day suñu borom nee na seen jëkkër yee ka baax ndax min ibaadina saalihayni la yàlla wax nit ñi waxuñ ko de yàllaa ko wax moo ne nooxan ak lóot daal ñu baax lañu waa ba leen seen ñaari soxna ya woreete yi wor gañ leen tax na seen baax nga jëriñu leen dara dañ leen di dugal sawara waa dara balaa matana lil si na amono imrata firawna isxaal rabbi ibni leen daka baytan fii janati ndeysaan xam nga kon sunu borom subhanahu wa taala kii nga xam ne mooy Asiya di soxna firawna firawna ak ni mu bone doon jëkkër ju bon demoon ba naan maa yàlla demoon ba naan maa yàlla moom firawna moomee ndeysaan soxnaam daa texe eh, war a tàbbi àjjana moom mu tàbbi sawara doom ji nga xam ne nag dañ koo teral toroxal baayam mooy Ibrahima maam sunu Ibrahima mi nga xam ne sunu borom mën a war taxase Ibrahima xaalila Ibrahima yow sama xarit nga xam nga xaritab yàlla laa neex naa wax waaye nag yàlla na la yow sama xarit nga moom Ibrahima la ko wax te Ibrahima mu aasara mi baayam moom la war naan atattaxisoo aalihatan ndax da jàppe ay yàlla ñi nga xam ne asnaaman aaliha ay xiiram lan nga di leen jàppe yàlla yow sama baay bàyyi ndeysa yaabati waaw nag inni ara gis naa la yow sama sama baay nga riir ànd kook sa mbooloo mi mbooloom ñu ànd yow dañoo riir nga riir danaa la jéggalu yàlla nag waaye taxut mu texe moom baay maam sunu Ibrahima di maam ci yonente bi sallallahu taala wa sallam moom Ibrahima ah ki nga xam maam dafa teeral la baay ba toroxal doom ja nag ba tey moo yonente yàlla nooxan nooxan nooxan doomam ja ndeysaan kër ba ndox mi di ball ngir doomu aadama yi war a lab ci ndox mi nee ko ay waay sama doom irkab maanaa kaay ànd ak sama sa kaay ci gaal gi gaaw yéegal ci gaal gi su ko dee gaal gi ma a fii nga ànd ak moom fii ba doola da ko ne ah baay bàyyi ma rek sa aawee ilaa jabal yasminu minal maayi bàyyi ma rek ma yéeg ci kaw montagne yi su ko dee amul benn jafe-jafe daa weddi di baay baax keroog moo tax daa lab ànd ak ña lab ñepp toroxaale ba gaal ga teeree nag yonent yàlla noon sax doon wax sunu borom naan ko ah sama borom day man dama ran ñaan ngir nga toroxal ma samay noon waa daa mel ne sama njaboot da caa far far bokk suñu borom da ko ne bu ma laajati loomul xam-xam ndax lay séminaire yi ko kooku du sa ñoñ lu dara ci yow donte yaa yaa ku jur di baayam waa doo moom du yow ndeysaan kon yàlla yeete na en tout cas euh, kiimaan koo fi man a gis ak doomu aadama ba mu mën a doon la la war mooy jaamu yàlla ndax jaamu yàlla rek mooy li lay euh, jariñ ndax nañu xam ne fi mu nii lu nit baax baax baaxam googu moom lay jariñ sax baax rek moo la mën a jariñ dara waaye baaxu kooka moom du la jariñ dara ñu bare bari bari nag euh, li leen di daal mooy sukkandiku ci baax ak jàmbor kooka lu mu baax baax te baaxul du la jariñ dara boo baaxee te baaxul du la wàññi dara ndaxit li am solo rek mooy nga jéem a baax ndax mu mel ne tey ñaari oto yu lànge bii jiitu bii topp ca ku nekk sa essence ngay lakk waaye sa moteur moom mënut a lakk essance ba ca gannaaw déedéet yow it mënoo lakk essence ka ca kanam déedéet ku nekk daal boo soolee essance sa essence rek ngay lakk waaye yéen ñaar ñi lànge kenn du lakkal moroom ja ab essence am déedéet kon jëfit noonu la mel boo léegi yomal xiyam ba ñu dekkee ci euh, bàmmeel yi doomu aadama yi ñi njëkkoon a faatu ak mujj a faatu ñëpp suñu borom subhaanahu wa taala dekkal leen dangay gis ñu naan waa nun kan moo nu dekkale ci bàmmeel yi waa loola mooy ña weddi woon dekki xaalaw yaa way naa man bansana min marxadina xëysama wa daraman wa saraxal mursaloon ay waa ji waay lii moom kan moo nu dekkal dekkate daal dekkate la yonente doon wax dëgg la ndax dañu daan wax naan da ngeen ëllëg da ngeen nangam da ngeen nangam ñu naan dañuy wax rek loola tey tey jii dëgg la man bansana min marxadina sama wa daramal wa saraxal mursaloon in kaanu ila seet waayida te suñu borom nee na loolu kat benn kii rek moo ne leen na piip rek maanaam comme tey jii euh, bu ñu wàllee bufta gi rek benn yoon rek mboolam lu deewoon daal di dekki loolu nag jullit suba lay tombeel muy dekki googu tisbaar la dajale mboole mbooloo mi ndaw doom jëkkër ak jabar mag rakk di jaay kub jarbaatam maama kub sëtam sëriñ akub taalibeem kenn du des ñu dekkal ñépp su ko defee nag euh, tisbaar bu nu dajalee mbooloo mépp tàkkusaan lay teg balance yi nag tàmbalee peese peese bi nag foofee ña fay gisanteeg ña fay bokk luñ euh, luñ luñ lay boole mooy ña bokkoon lu ñuy def moo tax boo bëggee ànd ak gaa yu baax yi da ngay jéem a baax ndax list ba moom suñu borom danaan waam taasul yow ma ayuhal mujrimoon génn leen gaa baax yi gaa yu bon yi gaa yu bon yi bu boobaa ku bonoon da ngay jóg doo mën a toog ndax cëri doomu aadama yi moom xam na yàlla mooy kan mooy jékki-jékki jógal boppam xam nga léeg-léeg nga am loo xam ne danga ko daan may ceen nii rek boo wëndeelee ba ba mu xiir boo bàyyee mu demal boppam no ceen googu ko may noonu may seen boo warangee warangee ba mun kii rek nga bàyyi mu dem noonu mu koy def noonu noonu la ci di gële suñu borom subhanahu wa taala ba nga xam ne bu ne waam taasul yow ma ay yoon mu jurimoon génn leen gaa yu baax yi rek yéen kàccoor yi mboolam ko bonoon da ngay daal di génn mun waaye yéen alama andi ilaykum yaa bani aadama an laa tabudoo seytaane inoo lakum aduwwun mubiin ndax yéen doomu aadama yi man yàlla waxuma leen wan ne leen na ngeen moytu seytaane te bu leen ko jaamu bu leen jaamu seytaane jaamu seytaane nag mooy ne ci mbon geeg bon bon yeeg def yu la neex yeeg lépp rek nga di ko def nga daal di foo dara lu la yàlla digal yaa ngi jaamu seytaane waxuma leen woon loolu an la tama seetaan innahu lakum aduwwun mubiin néew ma leen woon seytaane moom seen noon bu leer la boo xam ne làqutuwut seytaane moom lem nekk da koo fisal da koo leeral nàqutuwul nëbbutuwul amul kersa sa li muy def da koo leeral ba mu leeral nañ ndeysaan moo tax sax amaana ay borom yi am am yoo xam ne ëllëg ñu tàbbi sawara ak borom xam-xam boo xam ne ëllëg mu tàbbi sawara ak ku doon jeex de eh, xeex ci jihaad ëllëg mu tàbbi sawara jattu ñooñ bi leen laajee loolu lu ko waral mooy dañoo laaj ki nga xam ne dégg nga maam moo doon moo amoon xam-xam léegi nag mu ne man de daanaa xamle sama xam-xam waaw ñu ne ko ah waa daa nga ko xamle de waaw ba nga koy xamle yàlla taxul la taxan nga doon ko xamle daal mooy nit ñi ne akabare xam-xam te wax nañ ko comme yow loolu rek nga bëggoon ngaa bëggoon ñu ne ak a bari xam-xam te wax nañ ko kay <laughs> loolaay fay ga amoo fi fay ëllëg amoo fi fay tey di daara nekku fi keneen ki ci na ah, man de dama daan jiyaat ñu ne ko waaw daa nga de waa nag jiyaatu ngir sem réew da nga doon rek ngir ñu ne akay jàmbaar aka mën a xeex wala boog sem réew taxoon lay xeex mooy daal réew mi waa du jiyaat kon nag yow jiyaatoo kii mu ne ko sama am-am day daanaa ko joxe mooy daal foo ma mas a toll ba daan joxe ñu ne ko waaw daa ko joxe waaye booba la taxoon ngay joxe mooy njistal ak ñu naan aka tabe aka te nañ ko kon yëpp yu mat moytu la moo tax daal àdduna lépp lu ci doomu aadama yi def rek na koy def te yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala rek tax boo yàlla taxee loo jëf dana taxaw bu yàlla taxul nag dara du taxaw ah mbiri nag ku la ko yombalal kone ne mooy ku la ko nar a xañ waaw ndax kenn moomu ko yàllaay ki ko moom ndax am na tàkkusaan bu ñuy peese mbir yi amul ko naa boole ma ak diw peese wala bul peeseel diw wala peeseeleel diw sama na déedéet amul yooyu min doon hi wàll yéen wala nasiran kenn du fa am di mam koo xam ne day fiitoo say mbir ba lu ñu la nar na def kenn du la ko def na daal kenn du la fi dóoree wala kenn du la mbugal wala kenn du la nangam wala nasir waxuma la ku lay dimbali loolu amul li am mooy képp ku lay digal lu baax fii ci àdduna nga di ko def boo déggee yàlla fay ko fay la képp ku lay képp ku lay digal lu baax te doo ko def boo déggee yàlla fay ko bala bu fekkee da lay digal lu baax yow nga di ko def te du ko def moom boo déggee yàlla fay la ba ko yàlla daal yow mal jasaay la wax bisu fay baax yow mal jasaay yi moo tax timis bu ñu joxe résultat it Euh, ku nekk la nekkoon ci sab téere dong lan lay jox duñ la jox téere jàmbur wala tasiru waasiratun wisra uxraa amul jaawale ku nekk rek téere boppam la ñu koy euh, jox téere boppam mu ngi ñu ne ko iqra kitaabaka kafe bi nafsika jàngal si téere bopp bi nga xam ne ku nekk ci ñun xam nga li nga def xam nga li ngay def bi nga xamee sa ndeyjoor ak sa càmmoñ xam lu baax xam lu bon rek nga daal tàmbalee xam bu baax a baax a baax li ngay def xam nga fi nga jot a jaar ku la calculé woon euh, fanweer at ci gannaaw loo fi def rek mën nga ko wax boo dutub dof waaye boo nitee moom xam nga li nga fi def lépp kon mën nga koo rek la bopp su ko defee boo ubbee téere bi nag fekk ca lépp bu dee lu bon tuddee ko tuub da nga ko ca fekk boo ko tuubee nag moom ba yàlla jégale ko dañ koy effacer ndax nu kaffir xanxu say aatim dañ ko koy faral ñaawteef yi dañ koy faral ba mu set nga ne day mel ne mësu koo def nga ka ànlam us nib xattu mukk day mel ne ku musta bàkkaaru mukk bu dee ko ko yàlla jéggal timis lay jox résultat yi rek kon résultat yow leen war ngay toog ba mu yàgg ngay xalaat li nga jot a def ci ak mbon mbon nga di ko tuub li nga jot a def ci ak baax baax nga di ko xeet kon doomu aadama la koy dimbali mooy lépp loo def ci lu baax dee ko xeeb waa lépp loo def ci lu bon dee ko naw ndax naw sa lu bon dana tax nga bàyyi ko waa xeeb sa lu baax dana tax nga yokk ko kon bii boo ko bàyyee bii nga yokk ko rek daal am jàmm waaye su fekkee ne nag suñu boroom nee na julli gee googu nag boroom xam-xam yi maase nañ ci ne muy njéggim siraat njéggim siraat nag njéggim siraat guddi lay tombeel muy julli gee mooy waxtu wi du toll day leen dem këris waa doomu li koy leeralal ba mën a jaar teg tànkam ci kaw siraat mu mel ne ak buum ñeneen ñi ne comme wëñ doomu aadama war cee teekub tànkam nga xam ne bu tànk bi mbasee rek mu daanu tem tiim sawara te wa in minkum ilaa waari dooxa kaana ala rabbika atman mahdiya amul ku yàlla sàkk te doo jéggi siraat gaaw ak yéex lañ ci wax waaye jéggi siraat ñëpp ko def su ko defee nag su boobaa julli gee lay tombeel njàpp mi nga daan jàpp sangu farata bi nga daan sangu farata yooyu ay lamp lay def sa cër yi sa cër yi ay lamp lay tàkk nga mën cee teg sa tànk jàll am na ñoo xam ne day teg seen tànk rek yegg àjjana am na ñoo xam ne danañ dem ba tiit door a yegg àjjana am na ñoo xam ne dañuy daanu ci biir sawara ndax daal ci misaal mi mel ne buum goo xam ne dañ koo takkoon ca poto bu nekk Dakar amaat beneen pont poto boo xam ne dañ ko samp Touba muy ñaari poto ñaari poto yoo xam ne benn bi Dakar la benn bi Touba ñu jël ak liiñ takk ko ca poto bi dakaar ko ñoddi ko ba mu egsi ci poto Touba ñu takk ko muy génn fiil di ñaari poto léegi li tàmbalee Dakar ba egsi Touba lépp foo ci daanu du ñuy fiil gi moom ci nga war a jaar ñëw nga am na ñoo xam ne buñ egsee teegee seen tànk rek yegg ñooy gën a gaaw xeef ak am ñoo xam ne danañ gaaw gaawaayu avion am ñoo xam ne danañ gaaw gaawaayu oto am ñu gaaw gaawaayu moto am ñu gaaw gaawaayu welo waaye bi ci yées mooy gaawaayu mbotto nga xam ne bu ne tàyyi leer tuuti rek nawaat kamaj mu taxaw kooku day dem ba yàgg rek ñu ne ko xusooxu fa xullooxu su ma jaxima salloohu su ma fii silsilatin sarxuha sapoona siraaxan na faslu ko inokaanu la yumun bi lay asim seen borom day wax jàpp leen ñu njoñ ko ndeysaan foquloo su ma jaxima salloohu ñu sànn ko ci sawara joñom su ma fii silsilatin sarxuha sapoona siraaxan ñu yeew ko ay ceen yoo xam ne guddaay bi foo ko takk paase na ko faslu ko inokaanu la yumun bi lay ñu sóob ko ci biir sawara wi ko waral inu kaanu laa yumin billahi asim daa gëmut woon yàlla sunu borom subhanahu wa taala alxasim mu màgg mi moo tax kon yàlla rek kay yàlla ay waay jàmm bi boo nelewatee ba yeewu huwa lasi yatawafaakum bi leyli wa yaxlamu maa jaraxtum bi naxaari su ma yabasukum fiihi lu yox daa ajalal musamman maanaam sunu borom nee guddi gi maa leen di faat dajale ruu yépp ndeysaan kuy nelaw ko ne dee nga deegu ndaw boo amee jëkkër fàtte nga ko bi ngay nelaw boo amee jabar fàtte nga ko bi ngay nelaw magasin place yeeg liggéeyukaay yi lépp fàtte nga ko bi ngay nelaw am am bi lépp fàtte nga ko bi ngay nelaw fàtte nga cim nii nga tëdd bi ngay nelaw xamatoo ci kaw nga nekk mbaa ci suuf bi ngay nelaw xamatoo daara xaran ngi ngay def sax fi na tëji bu la waxoon yow booy nelaw dangay xaran da ngay wax man nu ma xaran amul kenn koy xaran ko xam ni muy xarane amul dañ lay wax rek yow xarankat nga waaye man damay xaran moom kenn mënu koo wax yàlla bindul ko mën a wax ne damay xaran te xaran mën nañ ne la kuy nelaw ko ne yaa ngi koy def waaye nga xam ko yombul il faut da ngay gis keneen kuy nelaw de xaran nga door a xam xaran waaye xaran mën na si koo xamee ci sa bopp yow te kon boo jógee dangaa deewoon dekkiwaat ku dee dekkiwaat nag lëggante moom mooy bu woon ne alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy borom bindee fi ndax day wax ne alhamdulilahi li si axyaana baxda maa amaatana wa ilayhi nusoo sant naa yàlla sama borom mi nga xam ne moo ma rayante dekkalaat ma su ko defee nag doomu aadama nag moo ñemee nelaw ba yeewu sëlmu galax ndiku ndikki dem liggéey te santut yàlla waa bu dee ganaar yeeg oto yeeg mboolem mbir yi dañuy xëy sant yàlla seen borom subhanahu wa taala boo ko weddee xoolal sa ngunul ganaar yi li boo xëyee boo ko ubbee nga xool ganaar yi mboolem ganaar gu génn dana naaw tuuti pët pëti sant yàlla bu fekkee na xar yeeg bëy yeeg nag yi la danañ jub fuddutu yëngal seeni geen sant yàlla su fekkee ne dégg nga maam oto yi la oto bi fi ne suba gi boo xëyee ba koo taal direct rek du sotti da koy taal ñu wax ko sofe nga taal mu gusung gusung gusung gusung googu mu def noonu door a tàkk loolu ak sant yàlla la ci moom léppay sant yàlla sunu borom si wa taala waaw ba ci picc yeeg amul dara ba ci sa takk ndeer bi sax bi nga xëyee da koo fekk moom mu jublu penku takk ndeer bi maanaam léeg-léeg day jublu euh, saw boo demee ba tusbaar bu jublu penku mooy takk ndeer moom euh, day ni muy jaamoo yàlla mooy juróom-benni waxtu yu ne ak na muy jëm fi ne tey booy tëdd yaa ngi ko bàyyi mu jubloon penku waaye day dem ba mujj bu dee ba guddi gi xaat mu wëlbatiku wuti saw saw nag penku ak saw bokkuñu muy mel ne nday joor ak càmmoñ su ko defee nag saw lay fanaan ci fajar geeg lépp takk neer bi saw rek lay jublu bu demee demee dem ba ay une tisbaar di waaja jot mu tàmbalee warangi ko di warangi ko ba ñëw ci sa ron tànk yi léeg-léeg takk boo xoolee ci sa ron tànk yi lay ni waaw bu ci nekkee tuuti da ngay gis muy wëlbatiku di wëlbatiku ba jublu penku direct dema dema dem ba tolloog sa jëmm ji dema dem ba sut sa jëmm ji ndax jamonoy tàkkusaan fekk na sa takk ndeer bi mat la ñaar ñaar bu dee ba ay minuit yooyu nag lay door a warangi ko waat te mënoo ci dara te foo teew bu teew fa moo tax ëllëg yomal xiyaam boo xam ne sunu borom dajale na doomu aadama yi ba naan waay yéen wala xada adalla minkum jibilan kasiiran afalam takkoonu tenqiloon waaye yéen naka la ñu bari ñu toll ni yéen ñii naka ngeen man a sànku nii wala xada adalla minkum jibilan kasiiran waaye xanaa afalam takunu taqiloon xanaa yéen nekku loon daan xalaat amuloon ay xel te xalaat xanaa afalam takunu taqiloon haasihi nag ngi nii sawara jahannam mi ngi nii alati moom lañ leen di dig tey nii ngi dugg leen aslawha hee alati kuntum toodoon aslawha ndax wala sunu borom def na yow ma naxtimu xalaa afwaahihim watu kallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum bi maa kaanu yaksiboon tay nag moom damay tëj gimiñ bu ma tëjee gimiñ ñu ne ah mu loxo yi wax bu loxo yi waxee tànk yi seede ko ah tànk na xanaa nag wax dëgg yàlla boo fekkee dañ wax nag seede dëgg dëgg dëgg dëgg mooy tànk ndax kër wax dëgg yàlla loxo lii muy wax tànk fekke ne ko ndax loxo kat musta dem bàyyi tànk tànk musta dem bàyyi loxo kon ñoom mën nañoo seedeente te li mu wax dëgg la bu loxo waxee tànk seede ko rek loola leer na kon nag bu boobaa kooka amul ku lay keneen ku cay dox lii nag alxuraan la waxee sunu borom subhaanahu wa la moom mi moom jaam ñu bind leen boo gisee mu leeral na ko day bañ a tañax tañax jéeg rëñax rëñax jéeg ngëlëmte nit ki dee ci. ndax nee na doomu aadama bu dekkee nag yow mal xam fi ne kenn ku ci ne ci ñun ñii ñëpp li nit ñi bari bari bari bari bari bari kenn ku ci ne bu bu dekkee jëm bis penc ci ñaari malaaka lay àndal menn malaaka ne ca kanamam meneen malaaka ne ci ginnaawam mi mel ne tey ji daal ci misaal bu màggal jotee mbaa yeneen xew-xew nga gis ñaar ñu ànd jiita aw nag kenn ka ne ca kanam kenn ka ne ca gannaaw ka ca kanam yorug buum ke ne ci gannaaw yorug buum kee moo yor buum nga ne ca bijjën ya ne ca kanam kii moo yor buum nga ne ci tànkub gannaaw bi ne ci gannaaw lim ci jublu mooy bu naaw yi bëggee mbëkk ka ca kanam ki ci gannaaw ñoddi ko bu nawet bëggee wëlbati ku dem ca ka ca ka ca kanam ñoddi ko kon ñaari malaaka yi ñoom it xam nañ ne bis pénc moom amul jàdd amul foo mën a jaar ndax benn suuf sunu euh, tàllal ba mu ne ñareet la nit mënu faa riir mënu faa mucc lu dul dëgg ah moo tax doomu aadama yi daal war na noo gën a yeew bu baax te moytu yombali yeeg jayaate yeeg yu ni mel te ñu bare bare bare bare bari la tax nuy yombal mbaa ñuy jayaate la koy waral rek mooy koo moom adduna mi ak euh, li nga xam ne dégg nga maam adduna boo ci nekkee war di leeral bu baax a baax sa diggante ak sunu borom subhanahu wa taala yeetee ndax ñu bare bare bare boo gisee yiitewul ndeysaan mooy adduna am na ci ñooy bari ñoo xam ne boo leen waxee dëgg ñàkk leen boo leen waxee dëgg ñàkk ne dëgg nag dafa neex boo ko xësee mos ku la waxul dëgg nga ba ko waaye boo mosul dëgg nag ku lay jaay rek moo lay gënal moo tax sax jayaatekat yi dëgg dëgg ñooy am oto yi ñooy am kër yi ñooy am xaalis yi maa ndax euh, dangay wax wax ju rëy rëy joo xam ne day dégg na may naa la kër sàngam kii ne may naa la oto sàngam kii ne may naa la nangam ci compte bi nangam ak nangam te lépp. yow mii wax wax ji yaa gën a xam ne wax ju du dëgg waaw nag comme ci nga mën a amee dara nga wax ko te nag na nga xam ne loolu la nit ñi di jox kat li muy bari bari nga tabax ci ay kër jënd ci ay oto takk ci ay jabar xamal ne bis dana ñëw nga dee ba ko fii ndeysaan te doomu aadama sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne ku mën a doon ci yéen wa maa nuammiruhu nankusu fil xalqi afalaa tanqiloon kenn ku mën a doon ci yéen bis dana ñëw ma jatt ko jatt jatt nag mooy di dox ak sa ñaari tànk di daw xam nga doomu aadama boo door a gën a jamono ab liir lay doon tëdd rek lay liggéey tëdd rek ñu tëral bu jooyee ñu yëkkati nàmpal tëralaat kon tëdd rek lay doon liggéeyam dem ba mu yàgg ndeysaan mu formé wu di jéem a toog nga bu ñu ko yëkkatee tii loxo bi daana toog lu yàgg ndeysaan ba mu yàgg buñ bàyyee mu daanu waat dem ba mu yàgg nag léegi buñ ko yëkkatee buñ ko baa ndigg de kakk du daanu kon léegi mën naa toog waaw bi mu mënee toog ba mën a toog nga moom fu mu toll day toog duutu tëdd daanaka tëral bi daal yaa koy tëral mu nelaw nga tëral ko waaye nag bu fekkee nelawut moom day toog kon léegi mokkal na toog bi muy toog di toog ba mu yàgg nag léegi li muy jéem a jàng muy di jéem a jóg day jóg di dee teelu nga di ko téye mooy taxaw waaye boo téye mu taxaw tuuti ba mu yàgg mu waat mooy daanu di ko def di ko def ba mu yàgg rek léegi boo ko tikkatee mu taxaw day taxaw directement taxaw googu muy taxaw nag duutu daanu duutu def dara day taxaw mën naa taxaw léegi. léegi noonu mu taxawee taxaw ba mu yàgg nag léegi comme mën naa taxaw ba mu leer léegi saa yu yëkkatee moom day taxaw mu leer na lu du daanu muy jéem a jàng dox ci biir jàng dox googu muy jéem a jàng dox moom doomu aadama ji. ndeysaan di jàng dox di jàng dox di tërëf di daanu léeg mu jóg na ñaadam ñaadam na ci suuf bipp sëpp jaleñ duur kanamam ci suuf wala mu jaaxaan ndax dox bi waaw day dem ba yàgg nag dox bi nag moom da ngay arrière lu sori muy dox di ñëw di dox di ñëw ba yegsi ci yow nga arrièreaat mu doxaat ba yegsi foofu nga bàyyi mu delloo te daanu wut loole nag kanam la jëm day dem ba léegi dox bi moom dalay leer na moom léegi mën naa toog mën naa taxaw mën naa dox dox bi moom naattableetu ko ni nga naattableetu mën a toog ga ak mën taxaw ga noonu la dox gi leere léegi léegi moo xam ne saa yu jógetee taxaw rek dox la cay teg waaye day dem ba dox boobee nag muy jéem a daw muy jéem a daw nga xam ne day daw xaw a jàpp tuuti waa daw boobu day daw ba mu yàgg mu daanu la mu def ca dox ba noonu lay tërëfe di daanu ndax dafa yokk wetin sam waa nag euh, daw boobu muy daw di euh, ba mu yàgg mu daanu ndeysaan ndeysaan léegi day dem ba nag léegi bu dawee duutu daanu rek foofu muy tirminis xam ne kon kon teel naa yegg nit ki saa yoo dawee ba saa yoo dawee te doo daanu rek saa yoo manee daw te doo daanu rek yegg nga foofu la yam mooy daan tëdd léegi mi ngi toog dem ba mu yàgg mi ngi taxaw demam yàgg mi ngi dox léegi mi ngi daw boo xësee daw rek yegg si nga léegi xam nga lu desee dëppaat daw gi moom gëna a daw du fi am li am mooy dem ba mu yàgg daw boobee day far wàññeeku léegi am nañu baree bare bare li ko tàmbalee ci sama classe gi tey ji boo nu daw la woon un kilomètre ne boo dikkee ma jox la un million boo xefee duñu ko jot ndax daw un dem dawaat ko dikk boo ko defee boo naaneem ndox boo tut faatu wala nga faatu ci yoon wi ndax sa dënn bi moo ko dut man da ko dut man te ay jamono tool na jamono yoo xam ne 2 kilomètres man ko ko daw arrêt retour waaye nag léegi daw bi moom wàññeeku na ma ne daw bokkatul ca daaw moom lépp lu daw di joxe ñàkk nga ko dem ba yàgg waxuma la daw bi waaye léegi dox bi ci boppam waaxu mi moom da nga koo far wàññi léegi booy dox ndànk ngay dox ba xam ne boo àndeek nit it li nga njëkk wax mooy mag boo àndeek moom da koy def ndànk nga na dox bi waaxu mi moom jeex na léegi dox ndànk fi sës dox ndànk boobee nag moo indi toog ca kër ga indi toog ca kër ga nga xam ne du doo dem ngénte du doo demuk céet doo demub dëj doo dem fenn ndax lan toog ndax koo xam ne munoo waaxu munoo dox toog nga man doo dem waaw ab dem moom da koy teg fee waaw dema dema dem ba mu yàgg nag léegi toogaay boobu akus néew dangay far tëdd am na ñoo xam ne toog ci jëm mu xalaatuñ ko bu toog gi moom li tax ñu def ko mooy ñu téeleen ñu lekk téeleen ñu naan mbaa ñu def leneen waaw daal duñ toog ci seen sago tëdd rek tëdd boobee nag bu bu bu dakkee dañ koo suul kon doomu aadama yomb naa dëpp lool te lool nag du sàmba du demba du kumba du awa du ku ko yàlla beral déedéet ku fi yàgg rek mu def la ko waa maa nu wa man nu ammirhu nan ku su fil xalqam laa tax loolu kon nag loolu lu leer la a ah, doomu aadama yi nag comme niñ koy faral di waxe saa su ne lépp doole ci doomu aadama muy xalaat xam na yàlla rek moo di yàlla yàllaa de yàlla nag royukaay mat naa wut ndax soo xamul fi ngay jaar ki xam fi muy jaar nga di ko roy lu baax la ndax it wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ay sëfoor lañu sëfóor bi xam na fi mu jëm laaj na la yow foo jëm nga ne ko barab sàngam laa jëm mu ne la yéegal ñu dem nga daal di jaayante ak moom jox ko li nga koy jox yow bu la neexee sax tëdd di nelaw ñaare dalay lay di lay giide ba ne la fii la kon boo gisee royukaay wasiila ñu wax ne boo àndeek moom la tax mu baax mooy boo naree toog dalay lay wax jógal boo naree jaata mën a la déedéet boo naree nopp mën a la déedéet ngeen ànd dem ba ca dëkk ba ndax dafay mel tey ji misaal euh, comme ni ma koy faral di waxee misaalam li nga xam ne moo di wasiila day mel ne tey jii euh, bu yàlla sunu borom doon ci misaal courant sëriñ si ñooy chargeur yi taalibe yi ñooy portable bi waaye nag chargeur yi da cee bari chargeur yu lakk chargeur yoo xam ne dañoo lakk yi dagg chargeur bu lakk ak bu dagg nag mën da charger benn portable moo tax bu yàlla doon courant sëriñ si di chargeur yi taalibe di portable yi yow portable bi fexeel ba roofe ci chargeur bu roofe ci courant waaye te doon chercheur bu baax bu la mën a sarse waaye su fekkee da roofe ci chercheur bu roofewut doo yegg doo sarse kon loolu lu leer la lu leer loolu nag di ko leerlu day baax ndax képp koo xam ne dangay ngay dund di nelaw boo dee da nga yeewu waaye nag day fekk boobu riccu passé kon daal yéen a ngi ci seen rajo Baol Média 88 point 5 628 81 08 88 628 19 05 mu doon seen jataayu diine jëm ci laaj ak tontu comme ni koy faral di waxee saa su ne lépp lu la lënt ci sa diine boo ko laajee ñu leeral la suñu kemt kàttan moo xam aada la moo xam diine la mares na la koo séparer ndax dafa jaxasoo moo aada ak diine su ko defee it li may faral di wax ne saa su ne duñ ca faral di tontu mooy daal diw kan mooy baayam ak yu nu mel wala diw kan moo ko jur wala diw bi faatoo kan moo ko doon noog garab sàngam kan moo ko dagg ak yu nu mel yooyu daal nga xam nga du la jariñ dara waaw loo xam xam la boo xam ne boo ko xamul mën nga caa tàbbi te boo ca tàbbee mën na laa yóbbu sawara moom loolu lu ñu war a xam la kon nooy siyaar baax baax sunu technicien nag soxna Ndumbe ci toogaay bi soxna Ndumbe Diop ci euh, liggéey bu rafet bi waa di ñaanal jëwriñ ji Serigne Modou Diop Thiar comme ni ñu koy faral di waxee saa su ak mboolem kuy kër këri ci rajo bi di wax na nun moom dañuy wax rek te yàlla sunu borom subhanahu wa taala di tax saa su ne di santaat yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax a baax ndax sunu borom moo ne wala yuhitoona bi say in min hilmihi ila ma saa xam-xam moom nit mënu cee peeg lu dul la ma neex kon nag bu la ci yàlla jagleelee dara war nga ci laabire doomu aadama yi te yàlla suñu borom rek tax tax xul laa asalakum alayhi maalan in ajre ilaa alillah nit ki yonente dañ daa wax ne nun dal duñu laaj kenn dara laajun kenn dara xul laa asalakum alayhi maalan in ajre ilaa alillah sama fay yàlla mooy ki ko moom moo tax bépp waxtaankat boo xam ne tey jii da ngay wax ne bu ma bu ñu ma joxut nangam du waxtaan kooku du diine diine moom li gën rek mbooloo mu dajaloo toog ngir ku leen waxtaanal la gën rek nga sawar ca lool tey yee leen waaye bu fekkee waxtaanu lu mu yàgg-yàgg te amatug ragal yàlla amulu góorgóorlu amulug farlu amulug riic ci say baakaar ak yéen mel xamal na du dara ak jayante la loolu nag daanaka mooy mbooloo moo xam ne dañoo topp seen bànneex rek nekk ca tàcc yaag sar xoolee waaye àjjana ku la ko yombalal mooy ki la ko nar a xañ ndax àjjana joo xam ne soxna ya fa nekk muy xóoral xiin soxna yi seen bët yi lam yat mi sunna in sun xablahum wala jànnum seen borom nee na soxna yooyu seen rafetaay foo ko takk paase na ko waaye jinne doomu adama mosu leen a laal waxuma la ak jinne in sun wala jànnun nit leen a laal waxuma ak jinne nga xam ne kaanohu nal yaaquutu wal marjaan wurusu marjaan la ñuy nuróol ndaxub rafetaay nga xam ne boroom xam-xam wax nañu soxna yooyu kenn ku ci na ci ñoom ñoom atraabun la ñuy doon mooy ñooy maase mooy tey boo amoon fanweeri soxna ci ñoom kenn du mag moroom ja ndax bu kii amee fanweeri ki am ñeent fukki at kii am juróom fukki am juróom benn fukk maanaam góor gi am kum taamoo kum ca taamuwul waaye ñoom ñëpp ñooy maase ñooy nuroo ab rafetaay nga ne samedi la ñuy gën a rafet dimanche dañuy gën a rafet altine dañuy gën a rafet talaata dañuy gën a rafet àllarba noonu alxamis noonu ajjuma noonu kon loolu mënee su ko am ci topp sa bakkan déedéet te aliti aajana ja xam ne wuxi de diggees na ko rek al muttaxoona waaye ragal yàlla yi moo tax suñu boroom nee na bu fekkee ne dem nañ ba gaay yi ñu dajale leen ñu bóof jahannama suñu borom nee na su boobaa damay musal ñi ma ragaloon waaye bàyyi ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo ra weddi woon yàlla suñu borom si wa taala te ñeme yàlla di def la leen neex ma tàbbi leen jahannama kon nag loolu mat nay moytu baax te suñu borom moom subhaanahu wa taala maanaam malaaka yi moom lépp lu leen digal laa yax soona laa maa amaroon wa yafoona la maa yoo ma doon mësunoo mooy lu leen yàlla digal lépp lu leen yàlla digal danañ ko def te doomu aadama kon war naa farlu bu baax a baax ci ak dundam góor gu kémti laay kàttanam te xam ne kuy dund di nelaw boo dee da nga yeewu waa day fekk booba nag ndeysaan riccu paase te adduna bi ñu toll nag képp ku ci dee ku ne nit ñi moom noos rekk a ci topp gannaaw dee noos rek a ci topp ndeysaan ndax la waral loolu mooy nit ñi lañuy ñuy njëkk a def mooy daal di jéem a préparé nag dajale nag li nga euh, li nga xam ne mooy bernde yi daal di jéem a lijjanti nag nag yeeg yu ni mel jéem a dem ci bitig ba jël ceeb baag diw gaag nangam ak nangam jéem a xool daal nu ñuy def ba mën a togg añ yi moo tax sarax yi léegi yi maanaam doon lu doy loo xam ne du diine aada nag la waaye du diine sarax saraxal du diine aadala maanaam te diine ji lañ daa def mooy bu nit faatulee du togg dara du togg du yàkk duñu raxas duñ def dara dëkkandoo yee ñooy def ku nekk toggam añam dikk indi ko ca ka faatulee bokkam ya fa ñëwoon man caa lekk waaye ñoom daawun tala togg mbaa ñuy yàq ka defi dara ñoom ña faatule su ko dee ñu dikk mat sawu leen ku dikk rekk daal di jaal dem mat sa lii de njëkkut fii te du fi mujj daal di dem waaye nag moo tax sarax sax ku la fa gën a yàgg moo la gën a ñàkk tiyaaba ki nga xam ne daa dikk toog lu mat ñaari waxtu ki dikk toog am fa waxtoo ko gën ëpp tiyaaba ki dikk toog ñeenti waxtu ko am ñaari waxtu ko ëpp tiyaaba ka dikk yendu ka dikk jaal dem moo ko ëpp tiyaaba ka nga xam ne dikk dafa dikk fanaan di mam ka nga xam ne daa dikk yendoo ko ëpp tiyaaba loo fa gën a yàgg daal sa tiyaaba gën di wàññeekoo kon nag saraxal du farata du suna aada li muy xumb xumb ak a rëy rëy du farata du sunna aada la euh, te dafa aayit lool lool lool ci sarax yi koy defaree mooy nit ki bàyyi fi alalam ñu di ca saraxal maanaam daal bàyyi fi ay nag mbaa ay xar mbaa ay bëy ñu rey te waruñ caare yi ñoom loolu alale ki dee moom dañ koy fermer kara dara waratu caa génn dara dara ndax way doon yu ñoo ko war a moom su fekkee ne nag ñi fi bàyyi moom góor gi mat na ñeent ñoo xam ne ñoom ñëpp ay mukallaf lañu ñu waxtaan ba juboon ne ah alal ji kat sunu alal la waaye nag nan jël nangam ñi nga xam ne ñoo ca d'accord ñoom ñëpp su boobaa dara nekku ca su fekkee ne nag dafa am ay gone yu ndaw te gone yi moom xamagun dara te seeni kilifa waxunu kenn amul sañ-sañu laal ca dara dara donte yaay taaw góor gaag yooyu yëpp maanaam doo doxee sañ-sañ ndax moo alal ji wala boog lenn mooy mën a nekk mooy tey ji nga dem jëndi sa mbirum bopp nga dikk dëjël boo dëjëlee yow lépp lu fa loo fa fere bu njaal ma dikkee boo dajalee dégg mu ëpp ko nga jël la nga ca jot fere yow fay kooko la ca des nga séddoo ko ak ñi nga xam ne ñoom nga séqal bu fekkee matut na nga xam ne yaa perte kenn du la mottali ndax yaa def lu ñu la def la wut kon saraxal du farata du suna aada la lay diine mooy daal ña ña faatu la duñ def dara dëkkandoo ya ña dëkk ak ñoom jàkkaarloog ñoom ay kër kenn ku ci ne yaay xool la nga mën a togg nga togg ko yóbbu ca ka faatulee lii de mooy diine waa gis nga ko dañuy dikk ray nagu guur gi wala xarumeer meer bi yooyu yëpp du du diine te gënut bu fekkee ne way euh, maanaam donn yi d'accorduñ ci ñoom ñëpp rek bu boobaa kenn amul sañ-sañub loolu su ree li ñuy wax it naan buñ ko miraasu du tàlli miraas taxut a tàlli téewut a tàlli déedéet maanaam euh, ki faatu moom waaye doon yi ñooy xool ndax dañ koy def mu gën a gaaw muy miraas mu gaaw wala boog dañuy jekkas ndeko jekkas ko nag mooy tëji mu bàyyi fi soxna soo xam ne dafa tollu diggante ñu ne nañ xaar ba mu am doom mbiri leer ndax soxna si bu fekkee dañoo yàkkamti ba bëgg ko miraas faaw dañuy def benn pexe mooy def ñaari cëri góor bàyyi fi bu fi bàyyee ñaari ciri góor ñaari ciri góor yooyu ñu fi bàyyi nag bu soxna si amee doom muy ñaari doomi góor miraas ma continuer soo amee doom muy benn bu góor nag day jël benn cërub góor ba séddalewaat boo amee doom muy jigéen rek dañuy euh, jël benn cër ba teg fee daggaat beneen bi séddale ko waat ko boo fekkee dafa am doom te doom ji judduwaale wut bakkan ñu jël ñaari cër yëpp séddalewaat ko su fekkee nag doom jël fa juddu rek daal di faatu bu dee góor ñu jël cërub góor jox ko bu dee jigéen ñu jël cërub jigéen jox ko maanaam daal ñi ko war a doon mooy daal fi ne nii euh, ki nga xam ne dégg nga maam dafa juddu rek daal di faatu rapidement kooku li muy faatu faatu am na fa ab cër kon yooyu yëpp euh, lu mat a xam la loo xam ne lépp diine leeral na ko kon nag gën a santaat sunu borom subhanahu wa taala bu baax a baax ci li nga xam ne mooy yitte yi nga xam ne doomu adama war nañ ko am ci seen diine di ko laaj di ko leerlu seen kéemtalaay kàttan ndax loolu dana waral euh, boo ëllëgee nga xam fi ngay teg sa tànk ndax diine moom noonu ñu koy faral di waxe mooy amul kersewu waa nag am na kersa kerse nag mooy nga rus a def lu naqar yàlla wala nga rus def lu la yàlla sunu borom subhanahu wa taala di dumaa yooyu yëpp mooy di euh, nga kersawu daal ci lépp loo xam ne dafa naqar yàlla waa nag kersa woo wax lu baax du kerse ak rëy la kerse woo def lu baax du ak kersa ak rëy la waa nag kersa woo laaj sa diine it ba tey du ak kersa rëy la kersa dëgg daal mooy rusa def lu bon am naa kerse ci def nangam ñu di ko dégg ëllëg naan diw sàngam bett na ma loolu mooy kersa kon nag ñàkk kersa baaxul nit war naa am kersa waaye nag bokkut ak rëy war a laaj te laajoo ak rëy la waa du kersa war a wax te def waxoo euh, du ak kersa rëy la su fekkee da ngaa war a dégg nga wax te waxoo it du kersa rëy la yooyu yëpp rek iblis dana ci sànjaafu doomu aadama ñu naan yow de nangam waroo ko laaj ndax ñu bare bare xamuñu ne xamoo ko te bi nga ko laajee ñëpp xam nañu yow ndekete xamoo nangam iblis moo lay rëyal na la bu laaj ba ko nga daal di rëy bañ koo laaj. te fekk boobu waral nga ko laaj ndax bu jàpp ne da am kersa naan am naa kersa ci laaj nàngam déet danga naan rëy na maa laaj nangam kon rëy ak kersa léeg-léegaa ñu jonjoo ñoom ñaar bu baax a baax a baax kon ñoo ngi seetaat yàlla sunu borom subhanahu wa taala bu baax a baax ci seen rajo Baol Média di ñaan baax baax jëwriñ ji nag sëñ Modou Diop caat mi nga xam ne ndeysaan saa sunu guddeeg bëccëg subaa ngoon mi ngi def lu jariñ askan wi ak lépp loo xam ne sunu borom subhanahu wa taala na rek man cee jariñu rek ñu di ko wax ci rajo Baol Média doomu aadama ji ci jariñu tawféex ba xewal ko kenn du ko ci ëppale yal ne ko yàlla dumbale nag aar ko musal ko ci daraja yi sóoratu yaasin ak mboolem kuy yëngu ci rajo Baol Média ndax it wax dëgg yàlla rajo lu diis la loo xam ne climatiseur yeeg dégg nga maam lamp yeeg nangam ak nangam ak rajo yeeg ñu ni mel lépp ay fere la waa teewul nag santaat yàlla bu baax a baax yàlla miy dimbale daal yàlla nu defal waftax la naa kula baabin kunta faatixaxoo li saalihiina minal xayraati yàllaaw mi nga xam ne mooy ubbi bépp bunt yu yàlla na ubbil bépp bunt yu ak képp ku fiy kër këri rek ak mboolem kuy diglu seen rajo Bawol Média yàlla suñu borom defal lu xew baax a baax a baax léeg-léeg nag mu am sponsor yoo xam ne danañ ci faral di dugal seen loxo képp koo xam ne nag suñu borom dogal na mu am sponsor bu mu bëgg def ci li nga xam ne mooy rajo Bawol Média maanaam te jàpp ci émission yi nga xam ne mooy jataayu diine yi ngir jàpp ci liggéey bi bu baax it boo wootee ci numéro bi nga xam ne mooy 77 780 37 18 incha allah bu soobee des na ci jokkoo yow ngir noo taxawee ci li nga xam ne mooy jataayu diine ndax it bari waa ne ku naan émission saa nga waree su koo teg euh, ci mu yàq gone yi wala muy nangam wala muy nangam moo xam rajo la moo xam télé la ba noppi yow jëfoo dara yow kay bu fekkee da bëgg loola bañ a am la def mooy ni nga koy xeexe mooy da ngay fexe ba am loo def yow def ga nag mooy fexe ba doxal loola doxal loola ndax Euh, bu dee film yu ni teg ci télé yeeg yu ni mel waaye yenn rajo yeeg yu ni mel daa am ñu koy fayal ña koy fayal nag boo fexee ba yow fayal diine neexal ci neexal ci diine loo xam ne daal dana tax diine gën a jëm kanam ndaxit it mi mel ne tey ji ab xare ab xare nag ci dëgg-dëgg am na ñoo xam ne mën nañoo xeex lool waaye nag amunu am-am boo xam ne moom lañ mën a jëndee matériel boo xam ne danañ ko mën a xeexe moo xam jaasi la moo xam xeec la moo xam xeexukaay la daal amuñu ko wala euh, fagarukaay yi amuñu xaalis bu ñu ko jëndee yow nga daal yëkkati sa xaalis fere ba tax ñooñu am lu ñu xeexe am lu ñu fegoo kenn mënu la waaw bu fekkee émission yi yàlla suñu borom dogal na nga di ci jàpp ci wàllu sponsor ak yu ni mel ngir yëkkati saw ñaq di ko ca def ba nga ne bu climatiseur yëpp euh, doxul ñu mën ko caa defar boo xamee ne dégg maam facture yi ñëw nit ñu mën ko cay def bu fekkee ñay def émission yi la ñoom it kenn ku ci ne di mën a yëg sa bopp ci bu baax a baax baax ci liggéey bi loola yow mi fexe ba loola man di sotti bu baax a baax it sax fay yàlla rek mooy ki ko xam ndax suñu borom ne na mën a amele saaliyan min sakarin aw unsa wa huwa muminun fa ulaayka yadxuluuna janata yurtaxuuna fiihaa bi saa hisaabin képp ci yéen daal koo xam ne moo xam góor la moo xam jigéen la tey def lu baax a ah, na xam na lu baax loo xam loole mu def daal moo xam góor la moo xam jigéen la danaa ko dugal àjjana te fekk boobu mu gëm yàlla ab julit lépp lu mu def rek te euh, fekk mu gëm yàlla moom euh, julit boobu sunu borom subhaanahu wa taala da koy daal di defal tawfiix tàbbal ko àjjana te du ko xisaab boo gisee mu ne waxu moominu nag mooy ab yii farul bu doon sànq ay milliards du tax mu am ca dara du ca am tiyaaba du ca am fay lu dul maanaam ay duma rek la cay amee ndax ñàkk gëm yàlla sun borom subhaanahu wa taala daa taxul nga mën a neexale yàlla dara lu tax mu faale say mbir kon sunu borom subhaanahu wa taala ki muy fulal ay jëfam daal mooy waxu moominu fa ulaa'ika yadxuluuna al jannata yurzaquuna fiihaa bi xayri hisaabin waaye ñi nga xam ne doom danoo maanaam weddi yàlla suñu borom subhanahu wa taala weddi ay aayaam faqad habita ahmaaluhum seeni jëf day sippiku nga xam ne lu mu jëf rek lu mu bari bari day daal di tuuru day mel ni tey ji camion suuf boo xam ne tey dafa beene maanaam suuf sa lu mu bari bari bi mu la rombee moom di daw bari na suuf sa ca nekkoon waa ba mu ko beenee rek maanaam xottu kese mooy la cay des kon kuy def la bon te di julit na ko riccu bu baax a baax ndax suñu borom nee na wala si ne isaa faaloo faayi satana wa salamu an surum sakorula fastaghfiru sunubihim wa man yaghfiru sunuba illallah ana kan ci yéen képp koo xam ne daal dafa tarxiis bay def lu mu wërta def ah na jéggulu yàlla sunu borom subhanahu wa taala comme fàttali noo am xelam dem ci yàlla sunu borom nee na ko yàlla yàlla na ma jéggal nangam ak nangam ak nangam ak nangam ji ma daan def yow yàlla yàlla na ma ko jéggal ndax sa néeg bi nga nekkal li muy yaatu yaatu fenêtre baa ngi fi buntu baa ngi fi ventilateur baa ngi fi mbaa climatiseur bi te taxu ko sedd mi ngi tàng ba ngay aj ab fenêtre wala boog dégg maam ngay euh, aj rido buntu te dara waru ko tàngoor te li muy yaatu yaatu kon bàmmeel ko gën a xat maanaam xataay ba ak lëndamaay ba maanaam loola amul fenêtre amul buntu kon nga ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala musal la ci lëndamaayu bàmmeel musal la ci xataayu bàmmeel ni ko sëriñ bi doon ñaane wala ci halil mawta raaxaatin wa mafraatan min kulli sarrin wa karbin daaxa yàllaaw la sëñ tubaa ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla nu defal noof laay dee te musal na ci xataayu bàmmeel ki njàqareem ak yu ni mel loolu kon mat nay ñaan bu baax baa baax ci ab juru te bañ a waccandiku te buñ waxee rek nga ne yàlla baax na te yàlla moom romb na baax ndax ñay tàbbi sawaraak ñooy tàbbi àjjana teewul yàlla baax yàlla suñu borom moom nee na bu ñëpp maase woon ci dama mooy du ma wàññi dara bu ñëpp maase woon ci dama jaamu du jariñ dara lépp lu waaye def boppam man xamile saale ndal fali nafsi wa man a asa fan lay xaa lépp lu waaye def ci lu bonit boppam rek la koy def kon daal wax dëgg yàlla loolu leer na bu baax a baax a baax baax suñu borom subhanahu wa taala yeete na ba bu ëllëgee nit du amu aw lay moo tax sax kulama ulxiya fiya fawjun sa alahum xasanatuwa alam yaatiikum nasirun xaalu balaa xat jaana nasirun fa kasab naa waxul naa maa nasaralaahu min say in maanaam boo liggéey amal xiyaam sunu borom subhanahu wa taala ba sànni leen sawara ndeysaan dañ leen laaj leen waaye yéen euh, xanaa doomu aadama yi yéen yéen nu a ba tàbbi ci sawar wi xanaa na boo léegi léegi léegi léegi lii borom ak yonente yi leen ko borom xam-xam yi jotale leen ko xanaa yéen loolu amul woon ci yéen kulma waxee fii faw jun saalahum xasanatuha alam yaatikum nasirun xaaloo ñu ne ah a ah kay daanañu laaj de daanañu wax bu baax a baax a baax bii de mais xat euh, jaana nasirun mais fa kasab naa waxul naa maana sala min say ni noo koy weddi woon naan lii ngay wax dara du ci dëgg loolu nag boo jàngee tabaaraka lesi bi yadi mulku wa huwa alaa kulli shay'in qadiirun fa la ko sunu borom subhaanahu wa taala di leen ba nga xamee ne dégg nga maam leeral nañu loolu ñoo ba nga ne xam nañ ni ñëw nañ sawara nag léegi mbir yi moom leer na lañ leen wax dëgg lañu xaaloo ñu naan cey law kunnaa nasma'u aw naqilu maa kunnaa fii ashaabi sayr cey nun de bu fekkoon ne daanañ dégg la ñu daan wax kon day tey jii duñ tàbbi sawara jaxim mii nga xam ne ci lañ tàbbi muy sawara saxiir mu métte métte métte waa xaalo law ku naa nas ma wun na xam maa ku naa fi asaabi borom subhanahu wa taala ba nga xamee ne dem nañ ba xam ne nag ca dëgg-dëgg lii seen bàkkaari bopp la ñoo ko defoon rek ndeysaan ah ñu ne leen nag mos leen sa ah, sawara waa noonu mos leen buggal mi kon daal li am solo ci doomu aadama bu mu mën a doon war naa góorgóorlu baax baax a baax a baax te xam ne lu waaye def boppam maanaam kenn deful kenn dara kenn defut kenn dara lu waaye def boppam loolu nag ña mat a wax ña daan wax wax nañ loolu moo tax Serigne Touba Xaadimu Rasuul ba masaan ñëw maanaam ci ay euh, maanaam ab jataayam maanaam bu dee jamonoy euh, midi la mooy suba gi dana la waar waarin woo xam ne doo tala añ waaye bu fekkee ngoon gi lay dana la waar woo xam ne doo tala reer daana wax ne jaamu ji leen yàlla te bàyyi seen caaxaan yi te xam ne yàlla fowul foluwul maanaam am na benn bis mu toog ba mu yàgg mu ne ndax xam ngeen yàq dugub ñu ne ko mbàkke yàq dugub da xanaa mooy lekk ba regg maanaam defoo ca lu neex yàlla sunu borom subhanahu wa laa waa mu na yaa mu ne ñu ne ko mbàkke de yàq dugub xanaa mooy toog toog togg lu bari lekk ca ba regg la ca nga tuur ko suñ tubaab ne akasa loolu te nuróo naag yàq dugub waaye nag yàq dugub dëgg mooy lekk ba regg daal waxoo ci lu neex yàlla defoo ci lu neex yàlla ba lekk ga rees jooju dugub moom yàqu na toogaat ba mu yàgg mu ne waaw ndax xam ngeen bitim réew ñu ne ko waaw mbàkke bitim réew di dafa mel ne maanaam nga jóge ci mi réew jàll ci meneen réew mooy daal nga jóge ci sim réew dem ci meneen réew mu ne ak saa nuru na ko nag waaye wuute naa moom bitim réew dëgg-dëgg mooy daal euh, bitim réew dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy euh, barsàq maanaam àdduna bi ñu nekk na mooy réew mi euh, euh, maanaam mooy bitim àdduna mooy bitim réew réew maa di bar sàq maanaam loo su képp kuy liggéey di wénne ci seen réew rek dana waral boo delloo buñ la ganalee baax na buñ la ganalee lu nga mën a ganal sa bopp waaye ku ci liggéey di yàqale sànka doo fa mu ne doo fa fekk dara kon nag loolu lu leer la kon nag moo tax daal euh, yombal yi moom mat yi nañ ko bu baax a baax rawatina nag euh, comme niñ koy faral di defee léeg-léeg ah, nga dégg ñu naa la waaw sëriñ bi nee na jébbal na ko seen diw sàngam mu jébbal ko seen diw sàngam mu taabal ko àjjana àjjana moom kenn tàbbeegu fa la gënoon rek mooy nan ko daal ñaanal jéggalu suñu borom subhanahu wa taala te it xam na nun ñi man miy wax ak yéen ak dégg maam yéen ñii may diglu ak moom miy faatu te xamul kan ko ciy fekke si nan ko ñaanal jéggalu suñu borom subhanahu wa taala yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla jéggal képp ko xam ne nag ameeloon nga ko àq na nga ko jéggalu àq yam ko ameel waaye képp ko ma ameeloon àq it ko jiigal àq yam la ameel ñu bokk ko ñaanal ñëpp ñaanal ko yërmande yàlla suñu borom subhanahu wa taala lii mooy ñaanu jullit lii mooy waxin wi waaye nag jébbal nañ ko seen diw daal mu jébbal ko seen diw mu taabal ko àjjana sant naa ko gërëm naa ko te fekk na booba def na loolu la naqari woon loo xam ne mas ngeen a xuloo mbaa ngeen meroo waaw te yu bare bare bare daal moo ko góor ñi nga xam ne dañ wax seen soxna naan seen sox euh, yàlla na di yeex lu bare bare euh, wax seen soxna naan sama soxna si daand na maa moom ñaar fukki yoo xam ne musuma def lu ma naqari musuma koo wax xam nga googu seede du dëgg maanaam war ngaa wax rek na daal maa ngi koy jéggal bépp euh, te goo xam ne mas na koo juum maa ngi koy jéggal bépp àq boo xam ne amel na ma ko it waaye nag koy jéglu moom it bépp njuumte goo xam ne mas naa ko ko def wala bépp àq boo xam ne ameelu naa ko maa ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ko jéggal jéggal ma loolu mooy ñaanul julit waaye naan musuma def dara te loolu moom xam nga ne wérut ndax jigéen moom diggante jëkkër ak jabar maanaam weer wu ne ñu def la loo xam ne maanaam wacc ko jot na caa wala nga def ko loo xam ne dégg nga maam mu ñaan la baat jot na ca kon nag mu muñalante dong la waaye nag wax dëgg yàlla toog euh, nangame at yoo xam ne kenn deful moroom ja dara wérul kon na xam naa ne incha rek euh, dafa mel ni soo na ndumbee Euh, xam naa ni euh, waxtu yi mi ngi ci cat li euh, xam naa incha allah dañuy jéem a laanam nga tàggatoo ak bokk yi rek jégguluwaat bu baax a baax a baax a baax ngir ne sant nañ bu baax a baax tey ni ko wolof di waxee maanaam bu yoon jeexul waax sul di jeex tey ca dëgg-dëgg alhamdulilah rabbil alamin te comme jenn jëmm la te daan doon ñaar léeg-léeg maak ki nga xam ne mooy sëñ Seydina bisir yi ngir mënu ci wétli di nu jàppale waale léeg-léeg ci maanaam waxtaan wi su ko defee comme kenn la tey rek loolu mooy li ko waral xam ne incha allah euh, dañu koy euh, maanaam tàggutoo incha di ñaan yàlla yàgg ko fekk te tal ko rek di ñaan lépp loo xam ne wax nañ ko fi ngir jëmi suñu rek yàlla na lépp loo xam ne dañ ko suñu borom subhanahu wa taala rek di tax séentu ca fayuk suñu borom bi subhanahu wa taala di ñaanal baax a baax a baax nag jëwriñ ji comme noonu ma koy faral di waxee sëñ Moodu Jóob Caat yàlla suñu borom doolu ñu ko ba nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dina ko musal ci mboolem pexe noonu bu nëbboog noonu bu feeñ waaye nag defal na ko nun mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci rajo bi suñu borom musal ci noonu bu nëbboog noonu bu feeñ maanaam wookon moo koy san la naa ministre siasiri ma sari famine wa sari haydin yàlla wa sari siiri wa sari xalq insi mooma jinni wa sar sumu yàlla inni jaxaltuka fi daaren yaasxati istanaasi nan fukkun marjaa yàlla falaa takilni ilaa nasifa halika kun mujibani haysuma doxuko xal min bila wajalin hata uhibba liqaaka haqqa la wali jalil mawta raxate wa mafratin min kulli sarrin wa karbin daaqi la wa fas leel jisma hay juro faaraqani fil xabri la tubliyan hu dahra illa wa kun nasiri anisi hinama dafanu jismi fasir wahidan samma yallahu la tadma man maxi ma xad rawixuni balik fen kulama axsaw yallahu wa najjini wa jami al muslimin ma xam wa najji walidati amina yallahu sunu borom noo ngi lay ñaan gudd fan lool gu ànd ak wér géeram xéewal gu ànd ak ngërëm mucc gu ànd ak mucc lee musal nu ci mboolem musiba ak balaa yi yàlla bu nu yàqoo yàlla bu nu yàqoo yàqulee yàlla buñ loroo yàlla buñ loree xéwal gi it bu nekkee ci kaw yàlla na ko yàlla wàcceel bu nekkee ci biir yàlla na ko yàlla génneel bu soreet yàlla na jegee te bu jegee yàlla na bu yegsee yàlla na bari bu bari yàlla na barkeel bu barkeel yàlla na ci jot buñ ci jotee yàlla nañ ko sunu njaboot wér ak yoroog yàgg barke Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul euh, euh,